ginnaaw ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal Alioune Badara Socé ak équipe bi mu bokkaloon nekk ci fajar ba léegi ñu ngi leen di nuyuwaat sama gaa yi na ci studio bi tabarakallahu Oustaz Alioune Mbaye asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Alxaaji Sëriñ Mbàkke Sylla asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu nu bàyyi leen ngeen nuyoon teeg way déglu yi tabarakalla jërëjëf Oustaz ñu nuyu la fay la nuyu nuyu soppeek am di jàmm yi beral leen nuyoo beneen nuyu nag sama xarit bi sama cousin bi sama mbokk bi sama wala sëñ Mbacke si la ñaan nuyu bi yàlla na ko fekk ci jàmm ak salaam amiin Hadj Mbacke jërëjëf oustaz ñoo ngi lay fay nuyoo ñoo ngi lay nuyoo di la siyaare ci àjjuma ji di nuyu di siyaare baax a baax auditeurs yi si defem seen rajo yëpp di beral nuyoo tey fay nuyoo imaam alxaaji oustaz Alioune Mbaye borom piki nag Dalifor ak Kër Massar ak ak ñàgg ak ñàgg borom ñàgg nu jotaay bii tëddee incha allah oustaz dañ ko defee lañ ko fas yéene wéel def ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk bu diisee bàyyi mbokk i commentaire te gàttal la ñu jéem ñëw tontu laaj yi nga xam te ñoo fi rot yi yomb ñu tontu ko yombal ñu noté si jot incha woote ci 88 628 98 98 sénégalais sénégalaises asalaamualeykum étranger yi nekk ci sunu biir te dëkk bitim réew yéen itam asalaamualeykum sénégalais yi nekk bitim réew yéen itam asalaamaaleykum mboolem ko yor sareet ci dëkk bi tabarakallahu di takk fas jéem ak dikk tey jot ay bagage ak roñ yéen borom sareet bi asalaamaaleykum je pense que bu la ñuy wax les charretiers borom camion yi nga xam ne dañuy tibb suuf asalaamaaleykum camion yi nga xam ne dañuy jaay lu mel ni euh, carrière asalaamaaleykum borom camion yi jaay béton yéen itam asalaamaaleykum jaaykatu kànkaayër ñuy jaay fur wi tabarkàlla yor ay taabal ak nu taabal jaman di demee ak fekk ma di nekk asalaamualeykum transfert d'argent asalaamualeykum tailleur yu màggat yi asalaamaaleykum ak tailleur yi ni nga xam ne ñu ngi nekk ci yëf yi di liggéey ñu ndaw ñi ak ñu door a tàmbali waa Italie waa Amérique waa Algérie waa Tunisie waa Makkatal Mukarama yéen ñu déglu foofa asalaamaaleykum. sëriñu daara yeeg ndongoy daara yi yéen itam asalaamaaleykum. gone yi def BFM ak gone def BAC yéen ñëpp asalaamaaleykum. yàlla nañu yëpp am ñi dem deuxième tour yàlla nañu am tabarakallahu yàlla nañu gën ñi ñi ëpp am ndogam ñëpp mënuñoo am waa Colobane tabarakallahu asalaamaaleykum madame Seck ak ba yëpp tabarakallahu yaayu Oumy ñu ne ci yoon wi tam di dem marché wala ñu nekk ci yoon wi di ñibbi jóge ca marché ba dugg woon bay ñëw te duñ togg suppa kànja asalaamaaleykum. waa daaru cubb ak li ko wër ko noon tabaarkalla njaxirat sàngal kaam asalaamaaleykum. Samba Ndiir tabaarakallaa moo nga cee daaru ci bu Alaaji Mbay chef de quartier asalaamaaleykum nuyoo baa ngoog nuyoo yaa ngoog mboolem ñi nga xam ne ñoo dëkk ci biir réew mi ak ci bitim réew yéen ñëpp daal jox leen sunu loxo ne leen asalaamaaleykum Babacar Ndiome Dia asalaamaaleykum FM daal del siwaat nag ci studio bi tabaarakallaahu fekk fi sama gars yi daal di daal di joxoñ suñu micro oustaz Alioune ne ko asalaamaaleykum ñu ni waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu tafaddala mashkurayni fa jazakumallaahu xayra tayib jërëjëf oustaz tabaarakallaahu ci tournée bi sëñ Mbacke yaakaar naa ni comme ni ngeen baaxoo di def rek ah, def na dana tournée nuyoo ndeysaan ndeysaan hmm, promenade nuyoo tournée la naa coalition nuyoo lay bëgg a tudd coalition salaam kon. waaw coalition salaam waaw. <laughs> boobu boobu fexe woon waaye boobu jub na. boobu jub na ay jëkkoon. <laughs> boobu am na solo <laughs> macha allah ku nekk li ngay wax nii nii ñiy jë ñiy bëgg ci jotaay bi ñëpp ku leen bëggoon doon nuyu yàq naa ne émission bi dana jeex. dëgg la kon ñi nga tudd ñoo yóbbaale ñi nga tuddul. Mhm. ndeysaan fay la bu baax a baax masawu la coono. Mhm. Eh, sëñ Ba yaakaar naa ni ajjuma ji passé. Mhm. fekkoon sëñ Ba ngi woon ci. ci barab. waaw ndeysaan eh, ñu gën la jaale sunu way jur woowu. Mhm. sëñ Ndiaga Ndiaye. ndeysaan Touba Njare Ndiaye. di way jur ci yow di way jur ci ñun di lépp ci yow. laay ndeysaan. Eh, kandaa bi ngay dem fi nga bàyyi say daal ndax ba nga ko yëgee xam naa ni. ndeysaan yëg nga ni am loo xamante ni manqué na la. lool kon nag ñu ngi la koy bu baax a baax. bala ñu dugg ci waxtaan bi. yàlla na yàlla fay leen jàll. mboolem ñi ñu koy jaale it mm-hmm. à travers suñu téléphone wala whatsapp ya kalma ñangaan mm-hmm. ñoo ngi leen di delloo njaal mm-hmm. di sàkku ci ñoom ñu ñaanal ko lim doon liggéey lépp suñu borom teg ci bëtam wane ko te nangul ko ko fulandil ko ko góor gu baax la woon góor gu baax la woon tabe it lool ci darajaam ak ci am amam est waaw jafe liggéey ba kera bi muy wàcc bi léggéey mhm. waxtaan ak njaboot gi woo leen añ ak ñoom bokk añ mhm. woo leen bokk reer noppi laaj waaw mhm. école bi may tabax ne euh, finition bi lu ci des ñu ne ko un million trente mille mu ne borkat daa baaxut daal di yëkkati gaganaam génn ci un million trente mille waaw waaw jox leen ne leen may delloo cinq mille. bu ngeen xëyee incha allah. daal ne leen bitti bi nag dafa lay tey nu teel a tëri. vingt une heure. jàppaleen ma ma tëri ñu jàppale ko mu tëddi daal di àgg nañ julleegul gaa yi te yéen julli ngeen gars da ngeen maa bëgg a nax. ndeysaan di julli gars yi bi mu noppee Moustapha bi tar ca troisième rakka ba mu wuyu boroomam. ca sa ca ca Allahu akbar comme saa comme ça. te. ah waaw ah yaakaaru na. yàlla na ko yàlla defal xusnul xitaam. amiin ci yaakaar. amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin. tabaarkalla. amiin amiin ak yeneen ak yeneen yoo xam ne woon nettaloo naa la keroog ba ma fa demee. Mhm. yoot rek na fa jeef mu ne ma waaw. ndeysaan looy wut. ma ne ko xanaa namal rek di ñëw mu ne ma loo ma sa defal day lu tey lii ci dàq. sama jàkk jéeg sama kër gi lu ci dàq mu ne ko sa kër gi <laughs> mu ne ma tey li fiy jóg. ndeysaan. <laughs> walaay ndeysaan. raasi jàkka ji ba mu raasi mu yëkkatiwaat ko. ndeysaan est-ce que. bi ma dellu see ko mu ne ma sama jàkka ji kër gi lu dàq ma ko jàkka ji dàq mu ne loolu war a am. waaye dëkk ci kër gu dàq kër yàlla moom. wóor. <laughs> waaw Mbacke mi ngay fàttali sunu waajur ba. waaw Baye Cheikh Khady. ndeysaan mu ngoog ndeysaan waaw Baye Cheikh Daaru Moussi. ndeysaan di fekk jumaa ju mu def plus de deux milliards nangam. ndeysaan wallaay ndeysaan dëkk ci néegu ñax boo xam ne waaye. wallaahi boo xoolee seen ci bitti. <laughs> ndeysaan ndeysaan. waaye mag ñi waaye kenn du ñoom. a ah. du ñoom kenn du ñoom. kon ndax keroog boo ñëwee Daaru Moussi. àtte euh, rek sëñ Abdou. ndeysaan mu jàpp sama loxo bañ jub bunt bi. Hmm. buntu néeg Baye Cheikh Khady ci mm-hmm. mu ne ma fii la nekkoon mu ne ko waaw mu ne ma nga nekk tëdd fa li nee ndeysaan mu ne ko waaw mu ne ma néeg bi jarul tëj ndeysaan hmm. néeg bii mu ne ko waaw mu ne ma jarul tëj mu ne ko lu xew mu ne ma lu ñu jël amu fi mm-hmm. allahu akbar lu ñuy jël amu fi ah waaw waaw borom néeg bi bàyyiwu fa lu jar ñuy tëj néeg bi ak a <laughs> ndeysaan ak am solo. waaw ah, ndeysaan misaal yu am solo oustaz. nag tubb ma xaddama wa asaar. ku la sey ahsana fi jërëjëf jërëjëf ci kàddu yooyu. jërëjëf jërëjëf mënta ñàkk si Mbàkke. wallaay am na solo ubbi ko am solo la lim seede ci alaaji njega lu am solo la. Mhm. moom tubaarkàlla. ku miin oustaz rek miin ko. ku xoromu la woon. ku mën a miinal nit boppam. wallaay ndeysaan waaw malgré xam naa ku yeewul lool sax du jariñu ci moom ci baatin. Mm-hmm. waaye ndax saa yir sim lay woon mooy ku miin ku mën a kaf ku uh. ubbeeku uh, <laughs> ndeysaan. waaw boo ko miin kay. waaw booy mm-hmm. agsi rek di ko miin ci saa si. Uh, eh, ndeysaan yal na ko yàlla yërëm. amiin maa ngi lay maa ngi dégg benn waxtaan waxtaan si maa yow. waaw gàmm ngeen fa demoon. waaw wax naa doo dem doxantu ji. waaw ndeysaan yooyu it xam nga nitu yàlla. du bari muy làqatoo waaw moo ne woon Assane Diop lekkal ceeb bi te bàyyi yàpp bi <laughs> gan du ñëw rek di <laughs> tàmbalee ci yàpp bi xam comme Jóob ak Njaay la. waaw <laughs> <laughs> ndeysaan. ndeysaan ndeysaan macha allah macha allah. xam nga xam nga xam nga kilifa yi nit yàlla def bari yu ñuy làqatoo. wallaay bari yu ñuy làqatoo yàlla na ko yàlla yërëm. allahumma amiin yàlla na ko yàlla jéggal te dugal ko àjjana. amiin amiin jërëjëf. kon mën nañoo. rajo bismillah mën nañoo rëppatal. <laughs> oustaz ma daal dama xalaatoon tey dañuy duggaat ci kër yi. Mhm. ñu waxtaane waat mbirum kër yi ndax ñaari way dencante yi nga xam ni continuité bu àddina bi sunu borom ngi ci compté wu basé wu ci jëkkër ak jabar ci njaboot yi ñuy jox askan wi. Mhm. mais léeg-léeg nemmiku ci ak ñagasu kàddoog diggante bu naqari. Mhm. boo xam ne daanaka booy xoolee ku jigéen ki bëtam xonq cur te du am ku ko fajal. Mhm. léeg-léeg góor jigéen xonqal bëtam lool it te du am fu koy faje ndax du ñëpp ñoo am ay kele du ñëpp ñoo am pexe. ma bëggoon nga dellusiwaatal ñu ci yooyu joxaat ñu ci itam ay njàngale ki conseil ndax ndax après tout nag ñaari way dencante dara gënu ko am doole ci dundu doomu aadama jërëjëf ci laaj bu am solo bi hmm. euh, jërëjëf ci ubbi gu am solo gi jërëjëf fi nga dugg foofu lu jar di dugg la ndax am na solo hmm. euh, te itam RP yi léeg-léeg doo dégg ñu di ko tudd loolu alxuraan ne hal ataaka hadiisul xaasiya laaj laajoon ko ba tey mooy laaj bi rek waaw gaa ñaar duñ dugg foofu dafa am nag lu xew bu njëkk niñ daan jëlee ak tànne ko jabar loola la pénc mi xewwi léegi jàpp ne loolu dañ ko war a weesu ñëw ci suñu yëfi bopp suñu yëfi bopp yi moo nu jigul. suñu yëfi bopp. waaw. bu njëkk yaayee tànn jabar. <laughs> léegi waajee tànn. <laughs> bu njëkk yaay bam daan tànn nit daw ca seet commerce. <laughs> léegi yaay yi li ci ëpp dañuy commercialiser yëf yi. boo duggee kër nogay bu la sa yaay laajee kan la ba nga xamal ko kii nogay mu ne kër googu moom at nuñ samay nangam nangam. laa ilaaha illa xeebeel dikk na. xeebeel dikk na. bëgg gi nekkoon ci yow. Mm-hmm. ba tax nga bëgg dugg kër Nogay. su yaay bëgg jël bëgg googu dugal ko ci geneen kër. Mm-hmm. nga dugg fa malgré. Mm-hmm. di wut lu neex sa yaay. wala wala ñàkk pexe. ku jigéen ki it bëgganteeg Mor euh, Khoudia. yaayam bañ wala papaam bañ. ndeysaan. léegi nobel googu ñu bëgg ko transféré jële ko ci Mor Khoudia yóbbu ko ci bàcc. Ah, par force. moom tam musay malgré. saa su fekkee yooyu yëpp am na ci. kenn ku ne boo duggee fi nga xam ne dañ la fa dugal te bëggu fa dugg. defalu jag la yomb. waaw. dëgg la na. kaay moo yónni la moo am. waaye papa yónni ma am na lu xew. dëgg la nga xam dañoo booleetul ñu war a ànd kon. waaw parce que léegi sëñ Mbàkke lu ne yomb na ba mu ne transfert ak Nobel. <laughs> boo ko laajee transfert yi. Hmm. bu transfert ak Nobel daal yombul li gën a gàtt. <laughs> lan mooy transfert ak Nobel. mooy ndaw si dafa nopp Mor Khoudia. Hmm. léegi nag ay waajuram ne ko nag doo nopp Mor Khoudia. Hmm, toxal tax du ko nopp ñu daal di indil ay yëf yoo xam ne du noonu. yoo xam ne bu doon diine hmm. bañ ko bu doon aada xëy na moo koy bañ waaye nag a nekk fi ngay ngay tëral aada naan aada sharia toogal aada lay jël loolu du sotti hmm. bu loolu nekkee ci penc mi nag oustaz hmm. kii buy sëy mi ngi sëy malgré xool baa nga cil ma xam mbaakool moom ma nga tëdd càllee sëy loolu da loolu nag musibal nag ah mais oustaz est-ce que loolu tam mën a mën a ànd ak jur njaboot gu barkeel wala gu baax daanaka mën nga ne déedéet ndax lii tax njaboot baax ñu naan ndey jaaku liggéey du bale du bale ay ay duy ay ndaa ak bale euh, euh, koñ mm, mm-hmm. waaw mm-hmm, mm-hmm. loolu ñu ngi ciy tooñ jigéen mm. waaw tooñ ju métti suñ ko bàyyi woon mu ne kii la bëgg kooku nu man di mel jur ci wàllu yomb ko kooko nu man di mel. Mhm. jur ci bandi yomb ko. dëgg la. du dëgg. waaye jox jigéen ku mu bëgg dem ba mu yàgg mu ne ko santiratuma la. Mhm. Ah. parents yee ko def. ndeysaan waaw santiratuma la. ndeysaan wala musuma laa santir ah. mhm. waaw maire yee ma loon rek. <laughs> mais loolu kon loolu day dàq li nga doon njëkk wax léegi sax ci hmm. maanaam ci yaay tànnal doom jabar wala bàyyi tànnal doomam jëkkër. gannaaw mën naa tànn ñu dem ba ca biir mu ne ko santiruma la. waaw dama góor ki ne ko sa yaa man daal sama yaay ma sonaloon rek. waaye xam nga lii laa bëgg damaa waxoon ca tàmbali ba ba yaay di tànn. Hmm. ba yaay te daawu ko commercialisé. Hmm. ci jamono. ci jamono. comme la tànnal da nga ko da nga ko sentir. parce que boobu moom mën naa xool ci ay jikkoog ay juddoog yooyu mu ñëw nag yow fekk yooyu yëpp ndaw si am na ko waaye nuboo ko. waa boobu boobu sëñ Mbacke. Hmm. ñi ngi daan nopp ci ay juddoog yooyu moo tax. Hmm. léegi bi ñu nëbatut ci yooyu nag nan ngay def kon ba. <laughs> très bien bi ñu <laughs> nëbatut ci yooyu yooyu am nag léegi. bi ñu ci yooyu. da ngeen ko mise à jour nag. ba affaire yi bu bu yaay dellusee. Hmm. Mbacke bu yaay dellusee. mooy bàyyi commerce gi ci sëy bi. delloosiwaat li amoon. dëppale ko li am tey. fexe ba ki muy tànnal doomam wala ki muy nangu mu ñëw denc doomam régal ba dellusiwaat rek régal ba mooy lan isa ataakum man na diinahu wa xuluqahu su boobaa loolu ndug dëgg la ji góor itam sëñ Mbàkke buñ ko joxee soxna fi muy waxee sentiruma la li ci ëpp léeg-léeg ku góor kee walla sentiratuma la hmm. parce que suñu mbokk sax Ahmed Dame Dia wax ne ak nopp hmm. dañ koy sàmm. yow yaa léegi dañ koy. Euh, mise en jour mise en di ko actualiser yooyu. très bien <laughs> léegi loolu boo ko defee loo dégg mu sentir tuba la. foofu mooy daa am virus yu koy yàq de. <laughs> ah antinob yi dégg dégg nga. <laughs> yaa jàng ci alxuraan. Mm-hmm. ba yàlla jeexal arijalu qawaamun ala nisa daf caa def li mu ko doon jeexale mooy bi maa faddallahu bii baadum ala baad mhm. wa bi maa anfaqu mhm. baat boobu nag la gars yi dul bàyyi mhm. wa bi maa anfaqu gis nga góor gu nay neexutu sentir waaw waaw waaye góor gu tabe neexutu fàtte ndeysaan eh, góor gu tabe parce que baat boobu Oustaz Alioune bu ñu ko peesee dafa diis. wa bimaa anfaqu mais boo ci dugalee naay ak tabe Oustaz Mbaye baadu léegi mbir mi doonatul nag ay affaire jënd nobel gi nga xam ne li ngay joxe mooy tax ñu nob la nit daan toog ci këram du yor dara tëdd tegalee tànkam ñi naan jabaram sax man de kii xawma loo fi def nga xam ne yorut fukki dërëm waaye teewul ñu nob ko mbàkke wa bimaa anfaqu hmm. joxe gi boo ko yemale ci weccet beeg poos bi rek ah, ah, ah am na kon kon beneen gën ah, dama la baat boo ko pesé. bu ko mën naa weesu loolu ngay wax noonu. Mm-hmm, mm-hmm, ndax mm-hmm. kon ñàkk nay du mbirum poos rek. déedéet parce que communication. boo ci nayee. ah. daraja boo ci nayee. tigi baat yi baat yu yuy neexlub sëy boo ci nayee. tigi mooy jonge gi. yooyu. Mm-hmm. lépp dafa dugg ci wëb maa anfaqu. kon ab sëy warut na tekk tekkaara rek oustaz Mbaye maanaam yaru ab sëy daa war di yëngutu daal. yëngutu ci wax yëngutu ci jëf yëngutu ci yëpp. yëngutu ci dàqante ci biir kër gi. yëngutu ci mm-hmm. songante kottu ci lal bi. yëngante eh. boxu. oustaz loolu nit ñi amatuñ jotam nag. gongo jamono jamono tey la wàllu gën ay. bu njëkk boo amul foo jëm boo amee jot. xam léegi nit ñi dañuy sa jabar day teel a xëy liggéey yi ngay teel a xëy bu ngeen wàccee daanaka farata rek ngeen mën a def. dimanche naaw bi ngeen toppatoo yooyu dimanche waaw kon léegi fii dimanche ba dimanche lay doon samedi saalin ah. boo ko yem na ci dimanche hmm. gis nga heure bi heure bi ngay wàcc man nga faa fekk yooyu waaw gongo waaw gongo heure bi ngay wàcc mm-hmm. mën nga faa fekk yooyu kon de problème oustaz war ngeen cee boole soññee ci loolu ndax léeg-léeg jël liggéey bi mm-hmm. wala ñu jël xale yi wala ñu jël activité yi doxale ko suñu diggante moo tax oustaz Aliou may dugg fi mu bëgg waaw nga dugg ci dimanche ma dugg ba dimanche ba dimanche non non du dama wax ne ok dimanche moo gën a yaatu waaye comme ni ko oustaz waxee à de 16 heures wala fu ngeen di wàccee rek Mhm. parce que sans départir na ngeen na ngeen di temps ba ngeen di am. lu tuur lay doon sax gis nga loolu. Eh, am nga lu wax léegi oustaz waaw lu am lu oustaz wax am ci wàllu xol. da mhm. nga nga ne na ngeen mise en jour. kii bi nga wax léegi. xol mooy sëy len intention yéene. Mhm. yéene mooy sëy. ndeysaan te yi oustaz wax. mënoo ko def ak koo bëggul. moo ko defa koo yërëmul ah, boo gisee yaay man a foo ak doom lu loo ko def mu neex la cofeel gi la yaay di ëmbal loolu la amul benn marché bu muy jaay. xanaa moo tax moo tax suñu borom dana am question boobu ak parent yu bëree bëri. Mhm. waaw. question wu pourquoi nga bëgg a transférer sa nobug doom ji transférer ko diw pour quoi ah, c'est nag loolu nag mooy. ñu ko te sunu borom waxoon ne. Mhm. Euh, wa min ayaatihi mhm. an xalaqa lakum min anfusikum azwaaja lu cay tege mm-hmm. li taskunu ilayha lu cay tege wa jaala baynakum mawadda lu ci tege wa rahma sëy wadd ak rahma ndeysaan ma yàlla nee mm. ku bëgg ku la yërëm mm. takkal ku mm. la nopp waaw ndeysaan ku bëgg ku la yërëm nobal ku la nopp mm-hmm. mm-hmm. ma wadda yaa bari xam-xam man daal oustaz vraiment baatu nopp moom aw ma ci woon problème mais léegi nii dama ci am problème ah. problème mu euh, baat nopp ak it jàpp sax est-ce sax nopp am na ndax léeg-léeg oustaz da ngay gis ñaar ñu la wante woon bay dagg di wadd ko nga xam ne bu ñu door a takkante photo yeeg profil yeeg sama nangam si snap yeeg yépp moom la di cakki-cakki rek ab diir bu néew ñu tongoo tongoo gu metti goo xam ne ku ne mën ngaa jëm sa morom paaka gàllankoorante waxante lu ñaaw lu nañu defante ko oustaz it ka noba ngi am ba léegi uh-huh. ay nobantu daal laayakaan ni moom bàkke hmm. seytaane bëri dool bi ngay tàmbali li nga wax léegi waaw bu fekkee duñ ko def mise en mise en jour <laughs> da ñëw ci application bi rek fekk. mais nag bañ ko ko mise en jour daal <laughs> dee leen ko mise en jour. <laughs> mais mais mais hmm. léegi nag wax ñu nag naka lañu ñu mise en jour rek kii euh, loolu. am na ñu ko xamal sama classe. dégg nga waaw mise en yooyu. li ci ëpp communication la. ndeysaan. est-ce que. maanaam diggante boo xam ne bi dafa war war wax ji daa war di bari. Hmm. wax ji daa war di bari. wax ji bariwul rek. waaw waaw wax ju bari daa baax. parce que waxoon naa la keroog ba ñuy jàng sëñ Mbàkke. Mm-hmm. ba ñuy jàng tabiatul mar'a. waaw kan mooy jigéen. mën mm-hmm. na la. Mm-hmm. jigéen joo dem fekk ci yii. sas daleen ba nga sa baaraam. bari wax. benn wax. jigéen mënoo am jigéen ju bariwul wax daanaka. si ay quatre vingt quinze pour cent virgule yi dañuy wax. boo leen boo leen ko xañee rek àddina tukki. jeex na loolu benn la. da ngay bàyyi mu wax. benn bëgg bëgg lu rafet. waaw. ah bëgg lu rafet. bëggug njàmbaar. ñett. bëgg lu neex. ah. Mbacke. Mhm. ndeysaan ñeent yi. jigéen dañ ko bëgg. jigéen dañ ko bëgg dañ ko mooñaale tabi'a la ci ñoom. moo tax alxuraan bi mu ñëwee. Mm. ñu naan jigéen baat ba awar la ak du awar mu ne hee. Mm-hmm. waxul na wax leen. waaw waaye nag xaw xawlan wax leen <laughs> ñu tàmbali mu ne xawlan maarufan mm-hmm. mm-hmm. ndeysaan na wax ji rafet. ku leen tere ki leen di tere wax nag mooy am problème. <laughs> mais oustaz yi ci mise en jour bi ba woon nii. waaw waaw mais wax ci lemal lemal lemal lemal gi. waaw te dana dafa am na man lu mën a dundal wala. Mm-hmm. wala waaw ça dépend ci. ku góor moom. Mm-hmm. comme yàlla dafa bind baat bi mu xudde. Mm-hmm. waaw baatu góor. moom du problème boobu. moom mooy jéem a dindi xuddee gi. waaw ku jigéen yàlla bind lu ko baat bu xudde. waaw jigéen moom ñu ci ëpp seen baat neex na nag. waaw mm-hmm. mais Moussa su la dee wax. xanaa bu ñaaw rek la baat bi waaye. wallaay wallaay pourtant <laughs> Oustaz ba gis naa ko xaw a rafet mais baat bi neex na ma ne ay Oustaz de moom tubarkal léeg-léeg nag Oustaz téléphone yi nit buy ci dégg ko raf bu baat bu neex billahi boo ko gisee rek xam ne <laughs> loolu de damaa yaakaar ne <laughs> damaa yaakaar ne. ma daaj waay ba. Ah? mais ci wàllu wax jooju Oustaz mbay fi Oustaz daane la bala ngaa jël. ci wàllu wax waxul na jooju. dafa am solo Oustaz ndax bari na sëy yu naqari ay wax a ko naqari waaw maanaam ruumandaat wax ju sew jigéen yoo hmm. xam ne bëggoon nañ ko waaye ñàkk wax farata mooy tax sax jëkkëram dootu ko ñemee dafa am laaj kër gi di xul rek dafa am laaj jooy jooy répété lool sëñ Mbàkke hmm. Hmm. dama koy dégg cew lu bari ndeysaan mooy euh, yastamino xaw la waaw faytabi'uuna ahsana rek gis nga ni kooku ko góor culture bi waaw gis nga penc bi Oustaz Alioune fu ñol-ñol bëree waa ji dafa amul faytabi'uuna ahsana waaw sag segg parce que da ngay wax nu jël ci baat bi loo xam ne waxoo ko. Mhm. par exemple tey boo ne woon euh, sa sa soxna. Fat mhm. Fat Sall. waaw. ah saañ bi di neex na tey aw buuru këram. jéeg waaw ko bi de neex na tey. Mhm. gis nga moom tey jooju nga ci boole. waaw waaw lay xam ne daa neexutoon démb. wallaahi. delloo la ko. waaw su ko ci su ci déggut su déggoon asana. day xam ne boo neex na tey. waaw. day wax jërëjëf. jaraw lakk. comme tey ci comme ci tey lañ ne rek mu am ci digg waaw waaye nag feete mun ahsana mooy. kon mm-hmm. xam naa. Mm-hmm. li ma defoon moo tax mu def nangam. Mm-hmm. kon xam naa. li ma waxoon tey ma wax. su ko defee yooyu. waaw. fayate mun asana moo fa dul am. dëgg la kon wax daa bokk ci li naqari. loolu nag mooy mooy indi ruumandaat yeeg. Mm-hmm. waka jaan yeeg. yu sew sewaan yeeg yu mën a ñàkk yi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais mais sax am jéggi maanaam su jóge ci bëgg waxtaan. bëgg ay débat yu yu mais góor gu noppi bu mel nii. waaw mbàkk si lu nga xam ne loo <laughs> di noppi rek. maanaam wax ci li wax yëpp di di loolu loolu nag mooy mooy mooy ruusal Nobel gi nag. da nga dem da ngay day dem ba jeex de. waaw kon kon loolu sa soxla di wax. Ah. war nga di wax ak moom di tontu. lu tax doo toog ba yàgg nga bind benn message naka mu. Hmm. ah. waaw ah. ah, bind benn message noo yenn dëgg la. Hmm? bind benn message mbaa lépp jàmm. jar na wala. lu ko ëpp parce que communication bi comme daf xam nga communication. ci fay tey. <laughs> non affaire bi yombut. da ngay da ngay xëy ci rajo bi. 6 hmm. heures. Maodo fay ñëw. ci kanam tuuti mu ñëw. treize heures. mu ñëw mu ñëwaat waaw dix-sept heures. Mm-hmm. ñu ñëw waaw. dix-neuf heures te boo seetloo. Mm-hmm. xibaar yi woon ci suba. Mm-hmm. moom la ñu baax moom daanaka moom la ñu yendoo ba ngoon rek. dañ koy wëlbatee ka duppal ñi rek. loolu am jàng la. parce que la répétition xam nga. Mm-hmm. pédagogique. <laughs> waaw mu mm-hmm. lu rek la kat suñu bàkke. Mm-hmm. boo dee ta boo dee si daan télé yi itam bu ñu la xasee jox benn benn image yu information. daanaka moom nga yendoo am. moom nga déglu rek suba xëy na li wutalaat lu bees. léeg-léeg sax ñu ñu tàngal ceeb indiwaat la la indi ko. loolu mooy yëf yi. ndeysaan kon bul xeeb benn occasion. waaw euh, sonn naa tàyyi naa lii waxoon naa ko ko. ndeysaan déedéet. kon lu ñor nga wax lu ñor nga wax lu ñor nga ree lu ñor nga ree. Ah, ak boobu dana ëpp di walla ah. <laughs> <laughs> en tout cas daal wàllu wax moom kon war nañ cee taxaw wax wax ci biiru sëy mhm. maanaam tudde ko waxtaan mhm. ak it wax lu la naqari mhm. ndax comme wax ji fi nga taxaw nii dafa am solo lool léeg wax neexal ab sëy léeg-léeg wax naqaril ab sëy léeg nit bëgg jëkkëram namm ko lool mu agsi wax benn baat rek dootu ko bëgg a xooli def ci guddi gi léeg-léeg di namm jabaram lool jabar ji wax benn baat rek dootu ci bëggati dara te loolu ñuuram toog bari xulak bari bari yooyu metti lu moo koy indi foofu la yàlla doon orienté nag ne allazina yastamiuna alxawla. wallaay ndeysaan. du ay waxam moom. Mm-hmm. waaye suñu wax yii. Mm-hmm. Mm-hmm. léeg-léeg nit ñëw ci wax benn baat rek bu am na façon ba boo ko ko déggee rek. da ngeen di fanaan yoo xuloo. dëgg la dëgg la dëgg dëgg. dëgg la yow yaay jël baat boobu. jële ko waxin wu rafet. xëy na kii daa déggul wolof. wala xëy na nangam. wala bëggul wax lii débat diggante jëkkër rek jabar. débat diggante ñaari way dencante. bu débat bi gëjee. bu ñëwee day tàng. Hmm. buñ ko waxtaan. waaw. ndax kenn ku daa am looy denc. waaw. Hmm. bu débat bi gëjee. day mel ne lu bees lu sérieux lu metti daal. très bien <laughs> parce que dana dana la jógal yi fi nekkoon yëpp. ak yi fi bëgg a nekk. Hmm. ak question yi mu la posé woon. te amutoon ay réponse kon débat bi jërul léegi nag <laughs> danaa mos naa ko wax euh, Ourey Thiam. waaw nekk euh, waaw madame <laughs> na ko yàlla yokk wér. amiin ma ne ko débat yi ci tele yi. Mhm. léeg-léeg nga seen ku yor micro bañ naan ko indi. Mhm. su xamoon. lu ca yàggee noona. Mhm. waaw bu ca yàggee yomba daaneel. très bien. Mm. laay la mooy indi question yi koy daaneel ci biir yi waxam. <laughs> <laughs> waaw góor. ci la bien Mbacke. xaayam ko dégg séeréer. <laughs> jërëjëf mais oustaz ci biir euh, côté boobu sëñ Mbacke. Mm. léegi tam aussi ci wàllu trin bi maanaam bu ngeen fatoo. Mm-hmm. Euh, léeg-léeg nga sonn. ku góor léeg-léeg mu sonn bu dee ko jigéen nga xam te ne day liggéey vite. léeg-léeg mu sonn moom it. waaw léeg-léeg coono am. te mm-hmm. diggante boobu léeg ak fi bu am ci. Mm-hmm. bu fekkee coono dafa am ci di diir boobu. Mhm. yan jumtuwaayu kàddu ak yan réponse mooy mën a moo gën a yell. gis nga soo wàccoon tey. Mhm. jóge ci benn sa sa liggéeyukaay. Mhm. nga ñëw soxna suñu waaw. ana seen directeur bu lakkale bi. <laughs> ndeysaan. nga ne ah ma nga fay lakkale rek. ndeysaan. gis nga <laughs> loolu loolu nga wax te te moom moo la ci bouché. waaw. wàññi na lu baree baree bari ci coono bi nga indi woon. ndeysaan. fexe na ba nga wax daal fexe na ba nga déchargé wu. très bien lu laa bëgg a wax. nga ñëw mën la waaw. Euh, ana seen daayira beeg seen. kees gi nga ne ko ah yi da nga fay naqari lijjanti rek. ndeysaan ndeysaan ah. Ah. waaw. soxna yi jàng leen loolu. nit da ngay mën a waxtaan ak oustaz waaw yow noo def dëkk beeg si. embouteillage bu ba dëkk beeg embouteillage bu bari bi. Mhm. nga ne ah. man daal saa waay deux heures de temps xam naa ko am coor bi. ndeysaan mais saa am na góor boo ko waxee mu ne ko mu ne la sa laaj bu bari bi bu ngeen bari. ne ah. noonu kay ña ña nga ñàbb suñu soo maanaam baat bi mu lay ubbil bi. Mm-hmm. da nga tontu bi nga ciy tontu. day wàcc lu baree bari ci coor yi mm-hmm. bu dee góor gu xam. bu mm-hmm. dee góor gu xam na nga xam. waaye may ma ndox waaye xanaa bala ngay laaj sax ma agsi. waaw waaw trop wala mu wax nga fa yem. <laughs> mais man ci ci parenthèse boobu bëggoon naa nga ñëwal ma kon ak kilifteef ci biirub sëy mooy lan. parce que léegi dañuy jàpp ne kilifa. Mm, oustaz mbay bu ne man kilifa laa ci sëy bi. wala ku ko wax mooy kilifa gi mooy comme li nga wax envoyé message. di wax ay ni ngeen def di woote naan namu naa laak yooyu day mel ni nekkatoo kilifa wala amatoo amatoo charisme bi nga war a am. léegi lan mooy kilifa ci biirub sëy kilifa <laughs> <laughs> dafa am kilifa gopp moom ci aada la nekk kilifa. am kilifa ko ci sharia la nekk kilifa. ndeysaan tigi tigi sëñ mm-hmm. ba def na yonent ba daa ñëw ne Aïcha. kaay nu dàqante. lii rek. sang bi waaw. kaay nu course. léegi kon. kilifa aada dàqu na. waaw waaw kañ. waaw lay ndeysaan. taxaw na. salaahu aleyka laaw yaalamu. yaalamu hudaa kaay nu dàqante. Mm. mu ne ko Aïcha. kuy joxe départ mu ne ko xanaa diw meeg diw. kuy juge ñu ne ah xanaa diw ak diw. ndeysaan <laughs> ñu départ. Eh, ay sa raw ko ba njëkk ba njëkk ko ca tableau drapeau ba ndeysaan ah léegi xoolal koo loolu noo koy firee waaw jàngale na de lu réeree jàngale na de benn bis mu ne ko waaw lu xew fii ci ginnaaw miir bii ñu ne ko mu ne dañuy simb mu ne simb gaynde ñu ne waaw mu ne ko sun sun yónente bi ne ko doo seetaani est-ce que laa ilaha illallah oh, ce ay sa ne ko bëgg naa seetaani mais awma billet mu ne ko billet bi ñaata la mu ne ko mille cinq cent yonent bi jël poche ya jël pochette ba yëlëb fu ne mu yëlëb deux cent francs yenn ci kër gi laa ilaha illallah mu ne ko laajal ba xam danañ maye ku taxaw ci miir bi seetaan su ne ay na ko loolu terewuñ ko mu ne ko kon kay da seetaan kaañ dem ndeysaan mu àgg mu tungoom ko fam ñaar loxo yi boot ci gannaaw ni ko yéegal su ne ay si yéeg di seetaan xoolal ma lii rek. Cheikh Aysa na. Hmm? seetaan ma deux laa ci am doyal sëkk. ah, ah, ah. waaw nee na waaye li ma fab nii. Hmm. moom duma ci doyal ba suba. wallaahi nit wow ci donc toog ci lu bëree bëri. loolu nag loolu nag bu ko nit xàmmee ci këram. Hmm. xàmmee ko ci pénc. dana xàmmee nu muy gérer. li nga xam ne mooy ah, kilifa ak aada ga ak kilifa ak sharia gi. ndeysaan rek tout court oustaz ci côté boobu la ngay dem ndax waxtu wi euh, Mbacke. xam nga léeg nga am soxna ngeen xaw a màggee tuuti. maanaam mu am ay doom yu mag. nangam nangam seen communication bu xawee xaleel tuuti te di am affaire mbëggeel dafa laaj toujours toujours affaire xaleel. Mm-hmm. ay je t'aime na nga def. yendoo nangam nag léegi soo xasee ba nekk mag nag mu kàllaf mm-hmm. waxtaan ak bi jaaw. soo soxna di mag yéen communication ngeen war yéen jumtuwaay ngeen war a def. bu dee bu dee lu fi ah. nekkoon. Mm-hmm. xale yi dañ koy miin. Ah, bu dee lu bees la di jaaxal. bu dee lu fi nekkoon boo dante rëkkante beeg moom kay lu mu mën noonu rek bu dee lu fi nekkoon. Mm. ci la xale yi màgg mais day am kafoog màgg kon bu boobaa boo xam ne itam waruñoo copier yi xale yi def di ko def. dañoo war a def ñoom li tolloog seen tamit sama jenn doom. dama am sama ñu may ko. Mm. yaa ji ne ko diw. ñu ngi toog ñun ñëpp mun na ko lu tax nga naan ma diw. waaw ah. atu ah, doo diw mun na ko déedéet noo tudd mun na ko ma dem diw. ma dem diw. ndeysaan soowale mm. na kuró ca kër ga waaw nga xam ne amul problème waxtaane loolu seen kanam de waaw <laughs> ndeysaan oh, oh, oh. loolu de ah, loolu de loolu de na loolu de am na solo am na solo <laughs> bu dellu bees na nga xam ne soxna si dafa génn àdduna mm. te paa bi daawu ko def mm. mu am paa bees bu koy def bees bees yooyu mën naa waaw waaw doom yi koo defal suñu baay boo ko dee jékki ne pap bi nga génn gàll looloo tombale dégg naa ay mag ñuy doxantu ci fajar gi di waxtaan mm. nee nañ daal Alioune saal war ngaa wax ci xale yi ñu bàyyi ñu ñu amit ak koo ndax dañuy jàpp ne defaral ñu néeg bu rafet ak taalal ñu climatiseur rek ak yaay yóbbu naa la màkka doy na nañ ñu wutal ku ñuy wéttali oustaz dimbalil maire yi la la la rajim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki Sénégal rawatina yéen ñi nga xam ne yàlla dafa leen boole ci lim bi war a dem màkk comme nu mu koy defee nag at mu jot commission bi nga xam ne moo ëmb wàllu njàngale joxe xam-xam ci Ali Imran jóg nag taxaw ngir xam-xam boobu nga xam ne di ngeen ko woo bu ngeen demee màkk ndax farata yi ngeen fay def dafa laaju xam-xam ci njiitu oustaz Alioune Sall incha allah jàpp nañu ko nag di ko door talaata yemoo fukki fan ci weeru juillet. képp ku ñëw foofu nga xam ne moo di masjidul nuur nekk ci ginnaaw banque BICIS bi nekk ci jet d'eau xam-xam boo yittewoo ngir sa aj màkk jaar ci yoon boo ñëwee daañu la ko jox kii di oustaz Alioune Sall moo fas yéene taxaw ngir jàngal leen seeni ponki aj dinañ ko amalaat talaata fukki fan ak juróom-ñaar talaata ñaar fukki fan ak ñeent ak talaata fanweeri fan ak benn ci weeru juillet yooyu mooy talaata yi nga xam ne tànn nañu ko ngir képp ku aajo xam-xam boo ñëwee waa commission bi nga xam ne ñooy joxe xam-xam ci Ali Imran ci njiitu oustaz Alioune Sall bu ngeen ñëwee di ngeen ko fa fekk moo leen di jàngal seeni ponki aj ba du ngeen ci juum kon ñu fàttali leen fàttali ko mbokk jullit yépp incha allah daañu ko door fukki fan ci weeru juillet bu 16h jotee ci masjidul nuur ci ginnaaw banque BICIS bu Gédo salaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, ñu daal di dellusiwaat nag war a jekk li li nga xam ne moo des ci euh, sumb bi oustaz Alioune foo tolloon. mu ngi woon ci rek euh, mbirum kër yeeg waxtaan yi nga xamante ni moom la borom kër yu mag yi ba xam mbàkke yu bënt na ne dafa ñu mu dab léegi ci fajar gi ñu yóbbante ni nga waxal seen doom yi ndax seen doom yi nee nañ <laughs> loolu ñoom ay takkoo foofu lañ daanee loolu am am solo la oustaz waaye fi ne sama téléphone bi fi nekk nii. <laughs> li lay xamal ne fi nga wax mi nga xasan. Mm-hmm. Euh, su ma lire les messages yi nga ne ah bon. Mm-hmm. <laughs> donc lu am solo fi Mbàkke duggoon sànq. dëgg la mooy. Mm-hmm. nit. dafa nite. xam nga lu tax ñu daan maamee maam. waaw. dañoo bañ ñu isolé ko. malnutrition bi ndey xal ji di def waaw waaw mooy sud nutrition. sud nutrition boobu waaw waaw. <laughs> maa ngi dégg ndaw si démb toll ci. isol isol maa xamuñ ko tuddee. waaw waaw non non isol. waaw ni ñu leen di beddee bedd gi ñu beddi mag ñi. beddi màggat da koy ñàkk tax mu ñàkk appétit. day tax mu wéet day tax yu bëree bëri. Mm-hmm. moo tax ñu naan maame maam. Mm-hmm. Mm-hmm. bokk na ci maame maam. nga naan maam sé séeri koko. séeri koko communication bi ndeysaan. waaw seetal lool. Oh. fu maam ñëw ci kër gi rek nopp nga kii noppoo kii nangam nangam. loolu ay ay message la. yuy delloo si waat maam. ndax maami tubaab. moom. <laughs> moom bokkul bokkul. bokkul amul sens moom maami tubaab kay tubaab kàlla. ak nootam yëpp balaa doon maam rek. jeex na bokkul mu koy maam tubaab moom. lu fekk loolu dafa am rek. maison de retraite su fekk loolu hmm. nit ki ànd kenn mu génn àdduna. mu am keneen ku ñëw kooku laay wax ne na doon rek pa bu xam li xew. Hmm. Mm-hmm. di guddee ñëw mm-hmm. di teel a xëy mm-hmm. xanaa amal njariñ gone yi waaw ci message communication ak sërite ndeysaan oustaz waxal ak gone yi yow itam jàpp ne man kilifa laa sama yaay dootu amati boroom kër buy ñëw ci kër gi wala maire daal loolu du ko ci fekk daa mel ne loolu itam oustaz àq la yoo xam ne doom mën na koo amee loolu su boobaa màkk yi nga yóbbu sa yaay hmm. tabax gi nga ko tabaxal hmm. ber gi nga ko ber mhm. loolu yépp dafa am tuyaaba ji gënoon li ngay def nii mhm, mhm. mooy tuyaaba yi ko koy wettali boo ko ko xamee yi ngay def yëpp lee ko gën te itam bëri na màggat mu gaaw a faatu li ko ak tànk yu du métti du dañu te mukk tànk yu métti bari na lool ak yeneen nangam ak nangam parce que gaa yi ci penc mi xam nañu li li ñuy wax gis baax yan cër moo koy defar ci yaramu nit ci yaramu nit su tollee ci defarutu ko. lim doon def ku koy def. kenn xamu ko. wallaay waaw. dëgg nan nu ci comme nañ dégg ci waaye parce que y a quelque chose donc bàyyi xel loolu nañ bàyyi xel loolu buñ ko bàyyee xel hmm. liñ defal seen yaay moo a defal hmm. ab lal foo dem am ko fa dëgg la dëgg yàlla lala am ko fa na ku ñëw di waxtaan ak gi mu ñëw toog waxtaan ak moom wéetaay woowu rek ñu toog di waxtaan leneen la lu bari lay def ci moom loolu doom mënu ko remplacer boo demoon Espagne wala wala wala Italie hmm. nga xëy fa taxaw ci benn buntu këru tubaab hmm. ne ko hola hola hmm. fokk may la tàngal ndeysaan ndax te am na ku ko wax. Mhm. am na ku ko boole ci société bi tey. ñoom mhm. itam dañoo ñeme wii trop oustaz. Ah, yàlla leen yàlla leen ko. deru rek beddeeku rek te wax ca kaw ñu nangu ca kaw moo tax boo màggat rek. man arda am zikri moo leen moo leen màggat moo moo léegi nag nuru gi ñu moo ñu tàmbalee appartement ak bureau. moo ñu commencé sonal. waaw ndeysa àjja kon nag. <laughs> waaw lu a jeexul jugu fa. ndeysa kon nag deuxième première partie bi jeex na rek deuxième partie muy wàllu auditeurs ci kanam tuuti bi ñu tënkee xabaar yi incha allah lañ ci dellusiwaat. bu leen doxal si nag déglu fa jëm duñu fa yàgg Oustaz Alioune moo ko wax. bismillahi rahmaani rahim allahumma ya akramu salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiri al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim مثل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نسر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تتقنى بها هور العين والولدان في الجنة التي وهد المتقون وجلها من أحب السكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينمو لهائي بلا مناي ولا انتهاء بسم الإله ينمو لهائي بلا مناي li rabbi xayr mu rabbi xadra maqal bi bil iqtidaay dix heures ma jot ba tekk juróom-ñaari simili bil iqtidaay Oustaz Alioune Kone ban xaaj moo ci tege. deuxième partie bii moo ci xe moo ci tegu te mooy wàllu auditeurs yi. ku ñu bëgg jot nu muy def. 88 6 Mbacké. waaw kay bu dee ñu ne ci biir réew mi 88 628 98 98. ñu nekk bitim réew. 33 841 22 33. nee dafa bëgg mbokk sax ne ko. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw yaaram na nga tudd fooy woote. Euh, Papa Thiam taal bi sëñ Sambay. Papa Thiam bisimilah tap tap. Euh, jigéen joo xam ni jullit la. Mhm. ab boroom kër boo xam ni beneen côté bi la. Mhm. ndax lislaam may na ko muy julli ak a woor. Mhm. ndax lislaam may na ko mu war dem penku. loolu mooy doon sama problème. d'accord. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Pape Thiam taalibe Serigne Sam ñu ngi koy jaajëfal imaam lii mhm. di xaar keneen ci ginnaaw ñëw na jërëjëf ko. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. bisimilah. El Hadj Mbacke Sylla. waaw kay Serigne bi na ngeen def ak coono. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. ñoo ngi ziar El Hadj Alioune Mbaye. El mhm. Hadj Mbaye. ñu ngi lay ziar bu baax di la bëggee. ñu ngi lay ziar Mbaye. di la ñaanal jàmm di ko ñaanal waa jotaay bi yëpp. jërëjëf jërëjëf Mbaye. di ko ñaanal Oustaz jërëjëf jërëjëf Mbaye mi ngi lay fay. di ko yóbbante bu demee mu ñaanal bu demee penku mu ñaanal Alioune. biskey jërëjëf. tey tey tey suñu laaj mi ngi jëmoon ci sëb Nisaa ñu ngi jot lu ñu waa daara ci bi yëpp nag ci bëgg ci oustaz bu baax. jëf jërëjëf. jërëjëf El Hadj Mbaye 88 628 98 98 33 841 22 33 si Mbacke. jaajëfal ko jël mbokk mi ci topp ci ginnaawam 10 heures jot na ba teg juróom-ñeenti simili ma nga ne di daw di ñëw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bisimilah bisimilah. Oustaz Mbacke ñu ngi lay ziar. jërëjëf. Moussa na ngeen def. ñu ngi lay ziar bu baax a baax ok Diallo Diallo. di ziar ndeysaan mi ngi nii toog. Diallo <laughs> ak Oustaz Aliou Sall. ndeysaan ziar bu baax. jërëjëf Diallo. te di ko jaale mbokk moom ay njëga yàlla na ko suñu borom yërëm amin lépp lu mu jëfal diine ji yàlla na ko suñu borom wan amin yaa rabbal alamin ci barke yéen bi salaa salaam ndeysaan tey nag da ngeen génnati bu am solo ndeysaan mu ci wàllu way dencante yi loolu moo am na solo lool ndeysaan ah kay te bu ñu bañoon guddal hmm. dinañ ci joxe ay xisa yu seen cheikh joxe woon waaye dañuy bañ a guddal ndax ñu toog ci ginnaaw ndeysaan tey nag ñaari laaj rek dañu indi woon hmm. benn bi muy jëm ci mu mudassir ñeenti laayu jëkk yi ak euh, oustaz nan la ñu mën a jàngatalee tuuma tuuma bu teg ci doomu aadama lan la ci suñu borom wax jërëjëf loolu moo doon laaj yi jërëjëf jërëjëf musaa jërëjëf Moussa Diallo Sànnaar imaam Ali ñoo ngi koy jaajëfal ci duggam boo amati solo boobu te di ko ndokkeel mm, jërëjëf ñu ngi koy ziar baax di ko ñaanal jàmm 88 628 98 98 daa mel ni ku nekk noonu. Mm-hmm. asalaamaaleykum. waaleykum salaam Moussa Aliou Mbaye. waaw ñanga waaw waaw ñu lay ñanga ñanga Mbengue ñu ngi lay ziaral. alhamdulilah ñu lay ziar baax di ziar Mbacke. ana waa waaw Mbacke ñu ngi fay ana baax Rome. waaw Rome ñu si jàmm alhamdulilah ñu ngi baax a baax. jërëjëf jërëjëf. waaw waaw Mbacke moom albidaay yi ñu def moom góor góor a jugaat fajar gi di tawaat waxtu ah, baa du soppiku waxtu yi daa tax muy guddee foofu fii day guddee trop parce que dara fekk bi sërgët si insha allah insha allah danañ koy baamuwaat insha allah yéen saana ban dégg naa tabaat fajar gi noonu ñoo yéen ñu ko tam nag d'accord d'accord ñu <laughs> am na solo trop jërëjëf baax nag jërëjëf jërëjëf ah te li ñuy dégg suur la waaw 38 37 38. beneen bi mooy ki nga xam ne day di day di takkusaan. bu dee da nga doon julli ñaar raaka daal di ko ko julli tam tisbaar. parce que yéen a takkusaan bu pare kooku nan la war a def. d'accord. ñu leen siwaar baax rek waxtaan ñu leen siwaar baax nag. ndeysaan. jërëjëf Mali sa mbokk maa ngi noonu sa njàng meng ca Rome waaw ca Rome nuyu waa Rome gépp nuyu kilifa Rome yi ak sénégalais yi nekk foofu ñëpp yéen yàlla may leen jàmm te dëgëral leen nuyul kooku. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Moussa Mbacke. waaw gaynde. maa ngi lay ziar ma la Xalilu kan Fari. Xalilu ziar Aliou Mbaye ak Aliou Sall. <laughs> jërëjëf Xalilu eh, ñu lay ziar Xalilu. waaw naan ko ziar ko marhaban. alhamdulilah waaw li li li li sëñ ña ña nga ña nga waaw ña nga nga wax wax sànq dëgg la xam nga su fekkee ne albinaay bu ñu koy jaaraat fajar bi dina baax waaw. d'accord parce que su fekkee décalage bi xaw na xaw na metti tuuti. Euh, maanaam fajar gi lu jiitu lu jiitu almis baax ak waxtaanu fajar. waaw waaw baax na. bu ko dugalee foofu dina xaw a baax. waaw incha allah incha allah. incha allah. Hmm. waaw tey sootul sootul nisaa yi laa laa dem. Hmm. Euh, aaya 128. incha allah wa imra'atun xaafat min baalihaa nushuzan aw i'raadan falaa junaaha alayhimaa ilal aaxiri. Hmm. waaw si si riwaay riwaay kii nag riwaay xas. parce que Ousmane Mbaye léeg-léeg xas moom. waaw waaw <laughs> xaliilullah Kane. waaw di di saa mu ngi laaj. surtout. surtout nisaa. jërëjëf. jërëjëf. dégg nañ Khalilou nuyu ñu waa Paris yëpp ñoo ngi leen di nuyu baax sëñ Samba Diop ma foofu ñu ngi koy nuyu euh, di nuyu les Parisiens yëpp salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. waaw madame Diallo. noo xaritu xaritu Oustaz Mbaye. Oustaz Mbaye. man man man man Abdou Karim xarit. li ma ñaanal fii yëpp Sénégal yëpp di ko dégg. ndeysaan ndeysaan ni ma la ci yërëme. noonu man nag dama koo gëmoon gëm gu wér. Eh, eh, xoolal xam nga damaa dese gëmukaay daal damay gëm. madame ko wax. yaa waa na di ziar ci àjjuma bi. jërëjëf ñu lay delloo ziar. Eh, man damaa ma ko dégg Oustaz Alioune mhm. mu mës a wax ci ay waxtaanam ne. couple mm. bu nekk mm. dañoo war a def at mu jot bu dee bu nekk ñu toog def réflexion mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. def évaluation si at bi ñu weesu yaa ngi dégg bu baax mm-hmm. boobu waxtaan seen biir kenn ku si nekk si yéen ñaar mm. xool waxtaan ak sa morom ndax am na yow loo xamante ne mu ko doon xaar si yow te loo deful ku góor ki wax ko ku jigéen ki ku jigéen ki tam wax ko góor bu hmm. fekkee ku nekk da loo matalewul la nga am loo si jéem comme ça seen relation mën a gën a neex parce que macha allah aussi communication luy dëgëral couple la hmm. parce que waxtaan su mu am rek xëy na réeroo mën na faa bañ a am est waaye nag suñu mbokk góor yi hmm. ñoom léeg-léeg bu ñu nekkee si dara rek dañuy daal di bëgg a délaissé ki ñu bàyyi ci kër ga. muy man na nga ñu bàyyi ah te laaj say laaj rek. te loolu du neex loolu moom du neex soxalu kenn loolu nag mooy indi la plupart du temps ay problème ci couple donc communication ak yëg ak. am na am na foo joxeñ waaye duñ la topp dégg nañ la. man yow laay waxal yow moom sax laay waxal. baax na daal. kon nag thème bi ngeen def tey moom man saf na ma torop torop torop torop torop la ma. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. wallaay jërëjëf ñoo leen di ziar bu baax baax di ziar ñëpp maa ngi ziar Ndiaye Papa namm naa ko. merci beaucoup di la dégg incha allah. jërëjëf ah, jërëjëf madame Diallo Mbacké madame Diallo Ndeye. Ndeye bu ko kenn topp. Ah, ah. bàyyi nekk foofu rek. maa ngi maa ngi ci Abdou Karim ko. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw kay yaaram. waaw. ku baax ki bismillah bismillah. ñu ngi ziar sëñ Kayre. Cheikh Tidiane Kayre Kayre. waaw ñu ngi lay ziar bu yore wér. ñoo ngi ziar bu baax a baax. di la jaajëfal te di la ñaanal bu baax a baax. amiin yaa rabbal aalamiin. di kontaan ci waxtaanu fajar yi. jërëjëf jërëjëf Kayre. ñu ngi koy topp lu am su leen rek dañuy ñaanal yàlla bu la cat topp. amiin yàlla amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin. ndax sa ay wax yu am solo. population bi. ndeysaan lépp lu xew rek. Mhm. population bi. loo xam ne ni warul. Mhm. sa kàddu lañ ci njëkk a dégg ñun. macha allah. ñaan yàlla. fayal la ci boppam. amin amin yaa rabbal alamin. boole ñu ko ñun ñëpp di ziar oustaz bu baax a baax. jërëjëf Kayre jërëjëf. oustaz Alioune Sall ñu koy ziar bu baax a baax. di kontaan ci moom trop. jërëjëf jërëjëf. gis nañ liggéey ci société bi bu baax a baax ci wàllu diine. saan ndeysaan. waaw euh, di la jox benn kii rek benn benn benn kii benn kàddu boo xamante ne nii. Hmm. moom laa ne fu mu duggee rek dinaa la ko wax. mooy hmm. booy booy commencé sa émission bi Al Misbah. Hmm. del wax cat. del wax lan cat dégage cat de ko wax dégage mooy a'uuzu billahi mina seytaan rajim damay dégg rek nga ne bismillahi rahmaani rahim doo a'uuzu billahi a seytaan rajim ah d'accord mu ne suñu mbàkk war nay wax cat dégage jógal fii d'accord a seexlu d'accord c'est waaw cat a laaj fan la jëmoon mooy daal hmm. keroog damaa seetaan ci benn hmm. mbër di wax naan hmm. yàlla maa ngi def li ma war a sama teg yow lépp <laughs> wulli waaw maa ngi def li ma sama diggante ak li ma war yëpp ba pare mayoo ma dara fu ma fekk ak sama morom nga may sama morom bàyyi ma ndeysaan man nag ma bëggoon oustaz ñëwal ma ci loolu daal moom lan la ci suñ borom wax jërëjëf waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax suñu mbàkke jërëjëf jërëjëf ñu ngi ziar suñu mbokk Ablaye Fall moom tam sa soppe la fu mu toll da lay déglu jërëjëf Kayre këppal ndànk waaw ñu ngi ziar bu baax baax jërëjëf jërëjëf Kayre imaam Ali Serigne Cheikh Tidiane Kayre ngi noonu billaay ndeysaan jërëjëf ñu koy ziar baax ci ci loolu mu wax ko nga nun c'est noté alors on suit la visite jërëjëf laf laf cat laf cat am salaamaaleykum jël <laughs> ko waaleykum salaam wa rahmatullah ah Alaaji waaw ñu ngi lay delloo ziar Oustaz Mbaye Oustaz Mbacke Sylla la surtout borom baat bu neex boobu. Mm. Allahu akbar moo ciy kan borom baat bu neex bi moo ciy kan. <laughs> Ah, xam nga ko waaye mooy suñu xarit bi rek. mooy kiy jàng alxuraan 15 heures wala. kii mooy xibaar <laughs> moo ñaaw na waaye koo xool mu dee amu ci yoon de. Eh, kii nag mbokk Abdou Ciss xulum la. Moussa Ciss. Moussa Moussa ñu ah. danaa xanaa Abdou ñoo bokk benn dëkk. imaam Abdou Ciss. imaam Abdou ah. Ciss. di ziare bu baax a baax. dégg naa ko sopp Oustaz Alioune Sall la. ndeysaan jërëjëf Ciss. ko sopp Imaam Alioune Sall sopp nañu la. ndeysaan jërëjëf Ciss. ñu leen di ziar man dama doon laajte rek euh, benn mbokk mi ni mu ngi gaañoo Europe. Mhm. ñu def ko ci kees indi. Mhm. ba ñu koy rob. Mhm. maanaam daanaka euh, ubbiwuñu ko daal ubbiwuñu kees am na benn kees bu ne ci biir nag boobu daal lañ ko robaale moom lañ ko jullaale. keroog bañ koy jullee nag nee nañu defar nañ ko foofu ba ñu teg. Mhm. lépp lu ñu war a defal jullee defal nañ ko foofu. Mhm. mu doon laajte nag ndax contraire bi warul mën a am wala déet dindiwaat kees bi yooyu yëpp daal dama doon laajte daal ndax contraire bi warul woon mën a am wala boobu rek doy na. d'accord. ginnaaw loolu maa ngi siyaare Alioune Sall bu baax a baax a baax may deret boobu daal bu ma ci yàlla. incha allah da nga ci ñëw ñoo ngi la cay xaar kon ca maye deret ba la 4 août incha allah ayca. <laughs> jërëjëf ñu ngi koy sant 88 628 98 98 33 841 22 33 jëlal kooku. foofu la ñuy jaar ngir bokk asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Sud rajo. wallaay ak man. <laughs> maa ngi leen di nuyu di leen ziar bisimilah bisimilah jërëjëf. waa di rafetlu nag seen waxtaan yi man na mooy ma leen di déglu. sa noo tudd. waaw ah, damay lépp tur bi rek. ah xanaa nekkatul sab rajo. sama rajo la kay waaye. Ah, <laughs> léegi man ah, kii maa ngi dañ siw bu baax surtout waxtaanu fajar bi. Mhm, yow moom dugg nga ci yow Oustaz Mbacké la dugg nga ci aj bi bu baax. Mhm. mais Oustaz Alioune moom daf koy cof rek. Mhm, Oustaz da koo jàngale ba sonn. man ren damaa fas yéene aji. ma bëggoon nag mu xaw a changer programme nag. incha allah aj bi. incha allah parce que ñun daal day suñu sëriñ boo xam ne daal dañoo doyloo xam-xamam. macha allah bien que ñu ngi. te déglu ñeneen ñu ngi seetaan ñeneen mais dañoo doy loo xam-xam kon moom ah na xaw a aménagé tuuti daal wax ñu ci aj gi incha allah dégg naa nag am na fu muy woote waaye ñun mun mënuñoo accès foofu ah waaw dañuy bëggoon daal mooy comme ñun suñu rajo ñoo ko moom hmm. ah mu jéem ñëw dimbali rek jéem ñi see baaxe daal gën a yaatal affaire yi daal maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf madame euh, Leb Touram ñu ngi koy jaajëfal baax a baax Oustaz Alioune ci duggam baax sax. waaw def nañ fukki minutes jëlal ko. di ko sant 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Yaaram. incha allah na ngay tey. na nga su fay woote. dem na. waaye dafa mel na génn nag nag ñu xaar keneen des na ko neuf minutes incha allah mu mën a dugaat kon nag demal nga waajaat ndax nga mën a dugaat bala émission bi jeex nul kii salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah bismillah Oustaz Mbacké Sylla waaw yaaram Seexuna Sylla Colobane naka waa a waa Colobane ak ci jàmm alhamdulilah di leen siyaare bu baax a baax ah kay di rafetlu émission bi jërëjëf waaw Mbacké yow ñaawaay buy lore moom daa am koy jëñ bay. bàyyi ko na dama ko ne ñaaw doy na daal waaye koo xool mu dee. amu ci yoon <laughs> xam nga xam nga baat bu naqari ñu koy muñ ñu dugg naan la sa bi neex na moom mooy àgg ci koo xool mu dee ji <laughs> maanaam dama ko gëj a dégg muy waaye sax da koo ñemee ci xam nga xam nga xam nga ah. Seexu naa waaw nga voix d'or bi ñu may bëgg a jox moom lay tëdd maa ngi a def grand théâtre ah. <laughs> dañ koo convoqué moo tax ñu mér taway boo avertise dañ ko def ba ñu ma dëkk di ci rajo bi rek lii lan la ah, rajo bi am nay kilifa di dañ ko artu ne ko ba nga woyeeti fi rek woy buy woy kay da ca daayira ba Dalifor mu woy. kon ah, loolu baax na. <laughs> ayca di nuyu di jaaraat i Alioune Alioune Sall. ndeysaan di rafetlu émission bi tam bi am na solo lool. ndeysaan mën nañ cee jàngee lu bare bari wax dëgg fa yàlla. waaw indi woon ñaari laaj. Ah, benn bi suut Nisaa yi la. Hmm. yaakaar naa du sore aaya cinquante six ak cinquante sept. Hmm. wa bi kufrihim wa xawlihim ala mariama buxtaanan asima wa xawlihim ina xatana masiixul mariam ila axir aaya beneen bi euh, dañoo yonente bi saa sam dafa waxoon ne aaji dem na ñu ngi koy jaajëfal daa mujjoon bari bur wi. waaye mhm. jenn aayam ji ñëw na di woo bi kufrihim ca suratu nisaa yi. Mhm, mhm, acca kon nag def ni moom. waaw kalaaw dix heures dana mën a ñaar fukki simili ak ñaar. foofu ngeen di jaar ngir bokk am na ko ñëw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah bisimilah yaaram. waaw soxna si. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. jërëjëf ñu ngi lay fay. di rafetlu waxtaan bi macha allah. jërëjëf jërëjëf. di leen amal aussi. ndeysaan. tur euh, bi. waaw dama amoon ñaari laaj. waaw ñaari laaj. benn bi mooy euh, euh, dafa am benn waaye dafa jël soxna waaye bi ñu koy takk. Hmm. daf ko xamaloon ni ñaareel lay doon. Hmm. léegi bi mu demee ba ci digg bi ci la soxna ci yëg ni ndekete ñetteel la. Hmm. léegi sama laaj moo nekkoon lan la. lan la ñu wax ci sëy boo xamante ni euh, ndikalal du du dëgg. Mhm. loolu moo nekkoon sama laaj. Euh, beneen laaj bi itam te dafa nekk par rapport ak seen waxtaan bi ngeen tàmbalee mooy sëy ma bëggoon laaj rek lan lan la ñuy dundalee Nobel. Mhm. waaw loolu moo nekkoon sama question di rafetlu bu baax waxtaan bi. Mhm. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa soxna si ñu ngi koy jaajëfal imaam yi. Mhm. wax na dëgg de tabarakallah jërëjëf xam naa di ñëw ndax euh, ñu ngi euh, sëriñ bi nu keneen la ah. waaw jël salaam. yaaram na nga tuddee fooy woote. Mbaye Sylla Sall. Gora Baye Fall. Kër Sega di wootee ji. jërëjëf Gora. <laughs> ñu ngi leen di jaar nam nañ leen. Gora gën ñu laa dégg de. maa ngi jégalu de maa ngi déglu nag bu baax a baax. Mhm. yitte yi nag moom léeg-léeg dana dul may nga mën a woote. dëgg la dëgg la jëf Oustaz Mbacke sax temps yi mu ma doon envoyé al misbaax la euh, mais fan yi gisuma ko boo duggaatee foofa rek <laughs> loolu waaw lool ab tàmbali ab kii la ab yëgal foofu rek ah, waaw ah. baax na waaw maa maa ngi maa ngi déglu yëpp nag waaw maa ngi koy déglu fajar gi booy tàmbali ñooy tàmbalee na incha allah naka waa Njaareem waaw ah, ñu ngi fi ñëpp ci jàmm naka seen marché bi lakkoon ñu ngi koy tabax waaw ñu ngi ci de ñu ngi ci de. Ah, euh, xam naa entrepreneur ba nag moom la muy ay yëfam taxu koo gaaw lool waaye mu ngi ci de. bisimilah <laughs> ñu ngay gasaka tabaxaka defar kii yooyu <laughs> <laughs> bi na ma baal aywa ñëwal ci laaj bi. waaw euh, ginnaaw bu ma leen nuyoo di ñaan si ñoom Ndiakhate Fall yàgg fi te euh, mm-hmm. di leen jot di nuyoo Baye Daaru Diop te Kër mm-hmm. Massar ak mm-hmm. sëñ Isma Seck. te Njaañu Njaga ñoom yaakaar naa seen bis le 23 août la. waaw. man nag jigéen ju bari laaj rek li ñu ci loolu laa doon laaj. laajub xaalis wala ay question <laughs> muy yéen. laajub xaalis xanaa wala yu demee noonu rek ay yitte ay bëgg-bëgg daal. <laughs> jërëjëf Gora. <laughs> Gora mi Gora bàyyil nay ndey rek. Gora daal moo neex rek. bu ñu bu def noonu ñun bawal bawal yi quoi ñi ñuy wax wax dara jëlal ko. jël ko salaamaaleykum. jërëjëf jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. allahumma amiin. ñu jaar bu baax a bi. bisimilah bisimilah ñu ngi lay dégg. Oustaz Mbaye boobu maa ngi jaar bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf ñu noo tudd yaaram. surtout euh, Luqman. ñu ngi lay dégg Luqman ñaata. bu mujj ba. ay bu waaw baax na kay kay kay. amiin yal ko yàlla boole Oustaz Alioune xam naa daa nëbbu aw turam. daa lépp tur waaw allah ayca. jërëjëf jërëjëf 88 628. waaw waaw nuyu ko. salaam wa waaw waaw. foofa ah, la loo indiwaat. laaj laaj bi ma defee woon. Hmm. ah d' waaw euh, dañoo jëlee ci ay sunu saa salaam mu ne woon chaque téeméeri junni at danañ yabal euh, mu bi yeesalaat diine ji. d' accord. léegi mu yooyu mu yooyu bu ñëwee. Hmm. xam nga li ñuy indi mënuñ ko génne ci diina ji mhm. léegi dañuy gis ne nag buñ dañuy dem ba jëmmi jamono ñuy gis ay débat ak xeet yooyu yu bari yoo xam ne dañoo wax ne yéen saa salaam bi mu fi jógee matal na jël alyoma akamat lakum diinukum bi mu wàccee diina ji mbat na amatul leneen lu ciy doon mhm. léegi mooy laaj kon xadis yoone de boobu ak ñoo ñuy ñëw moom ñooñu nan lañu war a lan fan lañ leen war a classé daal oustaz kii ñu ay leeral yu gën a leer d'accord baax na jaajëf ñu ngi rafetlu émission ñu ngi koy jaajëful baax baax Imam Ali jërëjëf Cheikh na Sylla 88. waaleykum salaam wa rahmatulah. kon ñu ngi ziar. ñu ngi lay delloo ziar kooku. waaw man la Ibrahima Ibrahima Thiam. bisimilah Thiam Ibrahima. waaw man de dama doon laajte dama bëggoon a mm-hmm. ak sama waajur bu jigéen mais mu xamal ma ni. Mm-hmm. Euh, maanaam balaa maa jël soxna am na lu mu ko war a defal ak yooyu noonu. Mm-hmm. loo war a defal kan. mais yaayam ah? war a defal kan sa wala soxna si. sama yaay man sama waajur man. am na loo ko war a defal door a jël soxna. waaw door a jël soxna. Mm-hmm. te loolu mu wax noonu bañu ma ko mais dama ko mën a wugul ma doon laajte man su ma jëlee soxna loolu noonu ndax. est ce que est ce que lim lim lu mu wax wala. allo am na lu ma ci a fekk. Ibrahima wuyul li mu wax na da nga koy defal lu ñu mën a wax la ci rajo wala. waaw waaw waaw maanaam ak kër defal ko këram jëndal ko ay moo gën a koy affaire noonu. Ah, d' accord. ok <laughs> waaw donc <laughs> merci Ibrahima jërëjëf ku nekk euh, Bakke. 88 628 90 90. waaw waaw ngoog. <laughs> salaamaaleykum waaw bisimilah bisimilah. aleykum salaam. bisimilah soxna si. Ah, dama amoon benn question. benn question waaw. Ah, ndax ku musul aji. waaw mun na ajaaleel keneen. d'accord. incha allah Oustaz dana ci ñëw léegi. leen jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci duggam bu am solo boobu imaal yi soxna soosu moom itam dafa nëbbu aw turam waaye nee ndax ko ajiwut ku mës aji mën naa ajal keneen. ñaari minute moo ci def jëlal kooku. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen yéen fanaane. alhamdulilah ñu ngi sant Oustaz Alioune Mbaye Oustaz Alioune Sall. ndeysaan Oustaz Mbacke Sylla. Ah, ndeysaan. yéen a ma jàngal lu ma xam yéen a ma ko jàngal. li ma xam ci diine ji li tuuti tuuti yéen a ma ko jàngal. Mhm. maa ngi tudd Fatou Seck. Seck maa ngi dëkk Yoff Ndane. Seck Seck. dama doon laajte. Mhm. ci lislaam. Mhm. lu ci lu yàlla wax ci takko. parce que ko fenn ci lislaam ndeysaan di leen gërëm incha allah di leen sargal jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna si kon nag yaakaar naa oustaz mooy war a nekk mujj tey kon nag ñu bàyyi la nga dem defe naa doo fa yàgg doo fa yàgg incha allah tax bu leen toxal sa nag déglu fi ñu jëm duñ fi yàgg dañuy déglu rek suñ partenaire bi wala suñ partenaire yi ci milieu alkitab ana biha huurul hiin wal wildaanu fi ljannati muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman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 sallallahu taala alayhi wa sallama haysu quriyat aw kutibat aw nusira ilayha abadan amin ya rabbal alamina wajalha mima tataqana biha hurul hin wal wildanu fi ljannati allati wuhida almutaquna wajalha min ahabi sukri ilayka wa ilayhi alayhi salatu wassalam jërëjëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo bi ñu xoolee seen montor di sër jot na ba teg fanweeri simili ak juróom ñu del nag ci xaaj bi nga xam ne moo ci tëb oustaz Alioune mooy ban mooy deuxième avant dernière partie incha allah te ñëw nag ci liir communiqué yi ak euh, laaj yi nga xam ne ñoo fi wàcc mm-hmm. jërëjëf oustaz ñu sant la baax gërëm la gërëm ta suñu bokki partenaires yooyu suñu bakkee mm-hmm. comme ni ñu koy baaxoo di def euh, ñaanal leen barke ak yokkute jiital ci loolu maam jaara mm-hmm. ñoom baxu rek ñoom madaar ak gaa ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi fi ak ñuy waaj a ñëw ñëpp yal na yàlla barkeel seen liggéey <laughs> alhamdulilah kon nag ñu teg sunu ñaan ci sa ñaan. ñoom ñëpp ñu ñaan leen barke tawfiix ak euh, mbir mu dox. amiin ndax ànd bi yàgg na tabarkala tu yàgg dëgg la. ci waxit wolof. amiin ndeysaan ndeysaan. ay loolu am na solo yàlla na ko yàlla nangu. <laughs> gaa ji jaaj serveur bi tam ñu ñaanal leen. ndeysaan ndax ñoom itam serveur itam léeg-léeg xaw saf. dëgg la dëgg la kon nag yàlla na ko def ci seen téere jëf. dëgg la yàlla bu ñàkk réer boromam. amiin yaa Euh, Oustaz. kon ñu ñëw ci laaj yi incha allah. mbokk mu baax mi jëkk a dugg ci buum gi mu ngi tudd Pape Thiam. ginnaaw nuyoo yi muy nekk siyaar yépp nee na day laaj ndax jullit bu jigéen. sëy koo xamante ne bokkul ak moom diine. ndax ay julleem ak aj màkkaam dana wér. bismillahi rahmaani rahim. subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al alimul hakim eh, alxuraan daa tere woon jigéen judul julit am jëkk jigéen judul julit am jëkkër judul julit islaam da koo tere laa hunna xillun lahum wallaahi wala hum yaxilluuna lahunna léegi kon soo xasee dem am jëkkër joo xam ne nekkul ci diine ji li muy tekk mooy diina ji moom bokk bokk nee nga bokkatoo waaw nee nga diina bokkatoo hmm. ginnaaw bokkatoo nag jullee ko woor ak aj maak ak net asak moom mën na ñàkk xam naa boo ko defee amul fu fuñ koy fu ñu ko ma fu koy bind hmm. ndax léegi da yaa ne man génn naa ci diina ji hmm. ndax li yonent bi indi woon muy alxuraan gëmuma ko li ma gëm mooy sama jëkkër ji moom bu weddee alxuraan bu weddee yonent bi moo ci bokkee man moom laa bëgg waaw dëgg la loolu rek la de. dëgg la dëgg la. Ah, kon maanaam daal bokkutoon réseau. déedéet bokkutut. bokkutoon réseau. maanaam ku lañ koy tuddee. Mhm. ña mayeeg ña d'accord ak moom miñ may ñoom ñëpp. Mhm. li leen wax mooy yeesluwaat leen. Mhm. ndax alxuraan daa tere lii ba noppi ngeen a terewu ko. waaw. ah loolu de fi mu ne matoon nay waxtaane jamono ju ne. waaye jamono jii la gën a rawati oustaz. jàppe nañ ko daal lu war a mën a nekk. ndax teg ko ci am xel. teg ko ci lusik teg ko ci moom laa nopp. mel ne hmm. da ngay yar sa doom waaye doo ko xemmam loo diine doo ko jàngal ba hmm. mu dafa mel ne koo xam ne daal nit wërta sëy ak moom wuru woon a tàmbali ak moom hmm. bay dagg di wadd di ca nekk ba nga xam ne dootoo ca neex a génne loolu da am man man gis naa mos naa seetaan sax ci suñu télévision yi benn benn épisode a mel noonu jullit ak catholique ku jullit ku jigéen ki ni akub moom la léegi nag du wax ma sax jëmi ki mais message bi lan la war a def ak lu la scénario bi est-ce que contrôle nañ waaw xam nga léegi ki bokkul ci diine ci moom def na yónni yàlla Muhammad yàlla yónni wu ko alxuraan ji du dëgg seen sëriñ si lim lépp du dëgg teewul nag yow laa nopp nga ne ko ànd naa ak yow ci loolu lépp li nga wax lépp teewul ànd naa ak yow daal di jiital bakkan loolu la alxuraan di tere nag mais ndax ñoom ku jigéen ko wax ko ba noppi góor jullit dem man koo takk moom waaw su ba xam nga góoru ku jigéen kooku hmm. bi ko góoru jullit di hmm. dafa gëm ne moom góor ki gëm na ne yonent yàlla Isa ak Muusa ak Muhammad ñëpp yàlla leen yónni kon nag taalibe bu ko neex takk ci taalibe yooyu ku góor kee nag def ne moom Isa yàlla ko yónni Muhammad euh, euh, Muusa yàlla ko yónni mais Muhammad yàlla yónni ko mm-hmm. mu ne kon bul takk bul takk ci njabootam mm-hmm. comme yaay aji takk ji bu ci takk comme yaay aji takk ji te gëmoon ne yàllaa ko bu bul takk ci njabootam. Mhm. même bu dee ko jigéen ki wóor na ko ne moom bu ci duggoon it dara du ko tax a bàyyi diineem dara du ko tee doon jullit dana ci góorgóorlu wóor na boppam bi mu duggee la bàyyi diineem hmm? waaw bi mu duggee la bàyyi diineem ndax laa ndax laa hunna xilun lahum très bien mhm. wala hum yaxilun lahunna kon de xanaa ku toog sa doom jigéen bu gisee ku mel noonu ni kii neex na ma balaa daaneel war nga koo teel a yee waaye ko ñuy dugg ak génn dugg ak génn dugg ak génn ba ñaante def si ne ko dalaa araam wóorulaa day metti de ah hmm. waaw en tout cas laaxul ne xelul lahum wala la na lahum mooy laay ji waaw misaal bu fekkee koo xamante ne moom xeexul sa diine wala boog nee la dama bokk bokkuma ci waaye nangu naa ko hmm. nangu naa ne yéen yàlla moom yàllaa ko yónni kooku an tabarruhum la alxuraan waxoon luy loolu boo deselee ceeb bu bëggee may ko boo deselee ndox bu bëggee may ko hmm. bu amee yëre bu bëggee may ko seqal ak moom jàmm jax an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim loolu la waxoon waaye may leen jabar nag mu ne déedéet rafetal jëm ci ñoom. Euh, lu lu neex la lu baax la oustaz waaye lu naqaree waxtaan la aussi ci penc mi. Mm-hmm. ndax ñun niñ li ñu dugal sentiment ci yu bari. léegi tey ñu jàpp ne boddeeku ci biiru xeet la wala yaa ngi attaqué nit ci pas-pasam wala nangam wala nangam waaye nag oustaz itam jullit tam war nañ koo yee ba mu xàmmee li nga xam ne suñ borom a digal ak lim ko tere. lii mu amala lépp suñ borom may nañu ko. Mm-hmm. lii àq da mu tere nu ko. Mm-hmm. jëflante bu rafet daal rek. an tabarruhum mhm. wa tuqsitu ilayhim mhm. foofa tere wuñu ko ndeysaan mhm. waaw waaw nga xamee rek jàmm na ñooy mais mais dugal ci alxabisuna lil xabisaat tayyibuna lil tayyibaat dugal foofu de ah, non non foofu moom leneen lay dox moom macha allah waaye fii moom fii rek la <laughs> merci jërëjëf solo kon ma loolu moo doon laajam bi moom sëñ Pape Thiam mhm. ki ci topp mooy alaaji mbay sa mbokk ma ca dar cub mhm. moom sóoratu ni yi lay joxoñ oustaz ab laajam ca aaya 19 lay tollool di tolloog fa suñ borom subhaanahu wa taala di waxe naan yaa ayyuha alladina amanu la yaxillu lakum an tarisu nisaa karha wala taaduluhunna li tashabu bi baxdi ma aataytumuhunna illa an yatiina bi faaxisatin mubayina jërëjëf laaj na laaj ba am solo ci suur Nisa ay 19 muy saar bi nga xam ne moom la yàlla tuddee jigéen ñi mm-hmm. wax ci seen i mbir nag lu baree baree bari wax ci miiras ak yu ne demee nee na yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla mm-hmm. daganul ci yéen ngeen di donn jabar ci force mm-hmm. sa frère daa faatu jabaram tëñ ji ba noppi nga ñu bëgg ko force ne comme dañ cee defoon xaalis da ngay toog suñu borom ne bu ko fi kenn defee su nobee takk leen bu nëbut bàyyi leen ko mu ñibbi mm-hmm. loolu rek la mm-hmm. su nobee mm-hmm. ginnaaw frère am daa faatu rakk jaa ngi fi nekk wala mag jaa ngi fi nekk bi frère bi faatoo beneen frère bi mën na koo takk waaye day fekk mu bëgg ko su fekkee bëggul bàyyi leen ko mu ñibbi ci bokkam seet ku mu bëgg mu seeg moom bu leen gàllankoor rek ngir ne maa ci defoon alal wala taxduluhunna sax mu bi ba'di ma atitumuhunna bu leen gàllankoor ci maa ci defoon sama alal su fekkee daa nekk ci kër gi nag di def yoo xam ne njombelaak lu ngeen di bañ ak njombateef la ah léegi nag bàyyi leen ko mu ñibbi su ngeen demee nag ba nobu leen jigéen ba bëgg leen koo donn mën naa am am na ci biiram loo xam ne mm-hmm. ba ci da ngeen cee gis lu leen ci téye mm-hmm. fa in karahtumuhunna fa asa an takro cheyan mm-hmm. wa yaj allahu fii xayran kasira wallahi wallahi waaw wallahu taala alam wa shukran ci laaj mbaam solo boobu macha allah macha allah mm. mm. aaya ji am na solo oustaz Alioune fi mu ko daaneelee nag oustaz amati solo lool mooy fa in karahtumuhunna googu waaw waaw léeg-léeg nit bañ dara fekk aw yiwu bare na ci biir lay ndeysaan c'est ah dëgg la dëgg la yàlla moo doomu aadama nag léeg-léeg bakkanam diri ko. Mhm. wala ay calcul. Mhm. waaye yàlla mooy li xam ki mooy ki xam li ñu. ci dëgg la dëgg la waaw macha allah. yal na yàlla <laughs> dëgg la est-ce que aaya ji duñ ci déggee mariage forcé oustaz itam dégg ci ne baaxul. Ah, ak yu demee noonu. mariage forcé yu nit da koo tere. Mhm. Euh, bu ñu mayee jigéen ku mu bëggut. yonent bi ne dindi leen ko. waaw. ndax xam na la nekk ci maye ku mu bëggut. am na ci jamonoom xale bu jigéen bu ñëw na ko waxal ci sama papa mu ne ko lu xew mu ne ko daf maa may Pape Dieye mm-hmm. te bëgguma ko mu ne ko wol ma sa pap mu mu ne ko na daj mm-hmm. mu dindi mm-hmm. ne ko xale bi dem mu yàgg mu dil ko nañ ma ko may ah. waaw léegi bëgg na yonte bi ne ko bu ma jaaxal mu ne ko bi ma lay wax bu njëkk bëgguma te it bëgg naa woon nit ñi ne leen yonent bi mu yàlla yónni waxul kenn mu forcé doomam di ko may ko mu léegi nag comme kenn forcétu ma bëgg naa ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu daal di ko koy may. Eh, loolu ci jamono yonent bi la xew. sallallahu alayhi wa sallam kon mariage forcé. Mm-hmm. moom bu ko kenn wax waxal lislaam bu ko waxal kenn. Mm-hmm. ci nit ñi rek la yaay bëgg forcé sa doomee ko ko parce que c'est nangam nangam. Mm-hmm. ndax say sentiment ak ñoom seen yooyu. waaw dëgg la non daf bokk ci àqin bi sax am sëñ Mbàkke. mu liibar ci tànn. surtout nag néegu sëy mu ni mu xate. mënoo fa nekk ak koo bëggul. waaw ñu dimbali ko ci tànn gi waaye bàyyi ko mu tànn. bàyyi ko mu tànn ñu dimbali ci tànn gi nag wax ko. <laughs> yow mi bàyyi mu am loo ko wax c'est important waaye nag jékki-jékki kilifa gi wala maanaam may naa la diw. waaw laajoo ko xalaatam. ay sëy kii lay doon sëy lobi lay doon. Hmm. maanaam yaay tëdd xalaat ne diw war nañoo mën a laxasoontey goj. Hmm, sama doom jigéen ji takk doomam man ma jël kee may kii yi nga xam ne yaay ràbb waaye sóoraale woo ci sentiment yi. Hmm. c'est important. dafa mel ni war ngaa dem te ñëwaat. du ma fa yàgg. déedéet incha allah jërëjëf. Jaba juróomi simili matin onze heures jot oustaz Alioune euh, tabarakallahu lu ci tege jërëjëf la xanaa jërëjëf mbokk yu baax yooyu dañu nag ci des laaj bi balaa ñuy bàyyi antenne beek waa desk inter incha allah sëñ Mbacke ginnaaw alaaji Mbaye sut ni saay boobu su ñu ko oustaz mhm. am na solo tëj ci mariage force bi nga doon wax léegi Moussa Diallo day oustaz moo ci topp mhm. nekk Sànnaar mhm. Jaañ ginnaaw siyaar yi mu indi ak nuyu yi mu indi yëpp tubaarkalla rafetlu na it waxtaanu Mbàkke Sylla wi ci waxtaanu almisbaax wi. macha allah. Euh, bokk ci maanaam mu dëppoo ci nag ak ñëpp wax dëgg yàlla. almisbaaxu misbaahun fil fajri. wallaay ndeysaan macha allah. le lion di fa di fajar. shukran. <laughs> laaj bu ci teg moom Moussa moomu. Mm-hmm. moom ma ca ñeenti laay yi jiitu ci sëtu Mudaththir. Mm-hmm. yow maa ngi fi sunu Boroom subhaanahu wa taala di wax ni bismillaahi rahmaani rahiim yaa ayyuhal Mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyaabaka fa tahhir jërëjëf ci laajam ba am solo boobu mm-hmm. euh, bu duggee ñu xam ne nitu daara dugg na mm-hmm. ñoo ngi koy nuyu baax baax di nuyu sëriñ Sàmba Jaañ bu sànnaara waaw kon euh, laaj bi xam nga mu defir sas alin mm-hmm. sunu ba def na yonent bi iqra iqra mooy jàngal ñu nga war a xam lépp ko mu jàng ba amee diplôme ne ko jàng naa bu pare mu mm-hmm. ne ko yaayal mu zammil xum fa anzir mm-hmm. léegi nag jógal nga defaru defal formation defal nangam ba ba li nga jàng nga man koo jox nit ñi nga mën leen defar mm-hmm. ok xaw mi lay la nangam nangam ba loolu jeexee nag ci la ko indi nag yaa ayyuhal mudaththir waaw xum fa anzir jógal nag jógal nag defare comme jàng nga ni ñuy defare defaru nga ba mën a defar. léegi nag xum fa anzir jógal nga defaree. jógal nga defaree mu ne ku ku bëgg a defare nag. Hmm. wa rabbaka fakabbir sa boroom day gën a rëy lu dul moom ci sa kanam. Hmm. ndax ku bëgg a defar te am ñooy bàyyeeg ñooy kii ak ñooy nangam doo defaree. Hmm. na sa boroom ëpp lu dul moom ci yow. <laughs> wa thiyaabaka fa tahhir ku bëgg a defare it xolam day set. ku bëgg a defare xolam day set mu ne kon setalal sa xol bi na laab ba set wecc ñeenti laay yooyu la sunu borom tàmbalee ci suuratu al mudathir euh, jëmee ko ci alayhi salaatu salaam jëmee ko ci mboolem ko xam ne kii aw xeetam nga nga nga jàng soo paree nga defaru soo paree nga defare wa shukran ci laaj bu am solo bi tkala mu mel ne loolu préparation àddina yëpp mu ngi aju ci loolu mhm. euh, jàng ba xam mhm. ba pare nga defaru door a defare waaw ah, tabarkalla sax léegi dootu xool jamono bi léegi mel na ñiy defare sax dañoo defarul ba pare. waaw ndax léeg-léeg ngay gis kuy defare te bu ko dee gañ gale mu mer. waaw ah mer salfaani kàddu gi tey di wax ci diina te buñ lay waxee lu dëpp wala li ngay wax nga mer. moom la suñu Abbas daan tuddee. Hmm. médecin bu feebar. <laughs> waaw médecin bu feebar. wala ne bukki buy sàmm. <laughs> <laughs> bukki buy sàmm de. waaw nee na ñaar yu rek la de médecin bu feebar ba bukki buy sàmm rek. <laughs> bukki buy sàmm la muy sàmm du aaro <laughs> jërëjëf Sadio laajam mujj nag mooy nee na nga leeral luy tuuma. tuuma mooy kàddu gu ñuy teg as gor. tuuma mooy kàddu gu ñuy teg as gor. moo def nangam. wala ma wax nangam. te araam looloy tuuma. Hmm. bu dee fen mooy moo ko wax ba noppi ñu nettali ko. bu hmm. dee tuuma dara xëndu ca. waaw looloy tuuma. Hmm. est waaw wa shukran ci laajam bam solo bi jërëjëf si Mbacke benn minute bi des nga am na solo de tuuma daal oustaz kon as goro ko moom waaw waaye xanaa day fekk li ñu koy waxal nekkut wala bu nekkee itam tuuma lay tudd déedéet bu nekkee aw fen lay tudd bu nekkut lay tudd tuuma waaye bu dee li ñu koy waxal moo ko def moom ki ko wax moom. ki ko wax daa fen bu dee nag da koo sosal kenn wax lu bu dee nag da koo keree da koo tuumaal. da koo tuumaal. Mhm. waaw lu tax nga ne as gor a koy moom léegi ku dutul gor nag moom bu ñu ko ko defee. ñaar duñ ko tuumaal. moom ku la <laughs> responsable waaw ki góorgóorlu di sàmm pam di dox ci yoon la ñoom si nu la ñuy tuumaal. Mhm. Mhm. ay ku deful dara <laughs> ku demul ca mbaat di làmb ji kenn du la daan kenn du la daan dëgg la de mooy sukkuraan <laughs> ndeysaan jërëjëf xam dafa mel ne waxtu buur na dëgg ñu bàyyi waa des inter incha allah ñëw tënkal ñu xabaar ñu door ñëw nag eggali li nga xam te moo fi des ci ay laaj bu toxal seen ak déglu fan jëm duñ fa yàgg incha allah jërëjëf ci ànd bi ngeen ànd ak Sud FM seen rajo bi ngeen xoole seen montre 11h moo jot ba teg 13 minutes. jërëjëf Xaadim Gueye ci mois bu am solo bi tabaarakallaahu ak ni nga ko dajee. disque d'or jaadu woon na ci tabaarakallaahu. kulli bi joodi bi leen teew Oustaz Alioune lu ci tegee jaajëfal desk inter bi jiite si Ndeye Marème Ndiaye di dal ci teg ci Maodo Faye di gërëm suñu mbokk ma nga xam ma nga ca malité di des chef desk <laughs> bamba waaw directeur en chef euh, di ko nag jaakaar naa ñëw ci dernière partie bi sëñ Bakké te mooy laaj auteur incha allah mm-hmm. ke nga moom la ñu mujjee woon mooy euh, Moussa Diallo Sannar mm-hmm. ki ci topp mooy suñu mbokk mbaax ma ne te Rome di njànga meng ah, si njànga nga Oustaz moo ci topp moom surat al an'am la indi ay laajam 37 ba 38 bu ñu demee xooli ko dañuy gis ne ma ngi aaye ja ca isib ba innamaa yastajibu aaye 36 euh, mooy innamaa yastajibu lasina yasmauna wal mawtaa yabasumullahu ilayhi suma ilayhi yurjaun waxaalu law laa nuzila alayhi aayatu min rabbihi xul inna allaha qaadirun ala an yunazila aayatan mm-hmm. walakin aksarahum laa yaalamuun Mm-hmm. jërëjëf ci laajam ba am solo boobu moom tam ñaanga mbeng nekk ci Rome saa su nekk mu ngi ànd ak rajo bi mm-hmm. al misbah waxtaani fajar al bidaaya minbar lépp rek tabarkalla lu fi dox rek mu ngi ànd ak moom ndax lu ci nekk mën na la ko nettali mm-hmm. eh, suñu borom daax ci fi nga tàmbalee suñ mbàkk ci bopp usib bi eh, booy waaraate booy waxtaan ci diine booy wax ci pinc mi waaw ñi nga xam ne ñooy dégg ñooy ñi dund wal mawtaa ñi faatu nag kenn mun leen a waar waaw mm-hmm. Mm-hmm. wal mawtaa mm-hmm. kenn mun leen a yàlla nee na kenn munta waarub néew néew yi daal yàlla li dekkal indi leen wax ak ñoom rek waaye yéen moom mu leen wax ak ñoom bañ dégg leen <laughs> waar néew li yombul am néew da du dégg moo tax duñ ko waar wala jeex na tàkk waaw mënee su ko waar kam dañ ko waar sax waaye su ko waar mu ne bokk na ci li ñuy wax ñoom ñi nga xam ne boo leen déggee xam ne ay néew lañ. Mm-hmm. lu tax yàlla wàcciwul aaya min rabbi. say ay néew yu dox. waaw. Mm-hmm. tax yàlla wàcciwul aaya. waaw lu tax yàlla wàcciwul aaya jóge ci moom jox ko yonent bi. Mm-hmm. ne loolu yomb na yàlla. yàlla wàcc aaya kéemtaan yomb na ko lool. waaye aktharuhum laa moon ñi ëpp ci nit ñi xamuñu ne ñi nga yor ñi nga yor kéemtaan ba noppi di laaj kéemtaan. luy kéemtaan gi mooy alxuraanu karim bi kay fi la kéemtaan yem waaw kon nee na loolu kéemtaan la war nañ cee mën a yem ba gëm ne yàlla mooy yàlla bokk nañ ci kéemtaan yi wa maa min dabbatin fi ardi wala taayirin yatiiru bi janaahi illaa umamun amsaalukum picc yi ngeen dëkkal nii gis picc moo xam ne mi euh, day xëy liggéey yi bu ngoon jotee mu wàcc picc moo xam ne dana mën a dem ci ñax mi jël ci ràbb ci kër fexe ba kër ga bunt bi féete suuf hmm. fexe ba fi yooyu war a nekk yëpp mu dagg xob ya fa nekk. loolu bu leen yéemut du ngeen yéemu. tey hmm? waaw waaw te bu ngoonee picc yi ñibbikat kat bi mooy jiitu. chef chef picc yi. mooy jiitu. su ko defee premier ministre nekk à droite ministre nekk à gauche. Hmm? picc yi des topp ci ñuy naaw. ba dama ci gétt ka bopp gétt mooy jiitu yàlla mu ne bu leen li yéemut kay wax dëgg yàlla ngeen laaj ay kéemtaan wa shukran ci am solo bi est-ce que macha allah am na solo am na solo oustaz kon aayaam jaa ngi noonu oustaz Alioune loolu mooy laaj bi nga xamante ne moom la indi beneen mais mais laaj bi ni xam nga hmm. nit nit rek moo desee xam kilifa hmm, hmm, waaye mboolem yi yàdd bind yëpp ba ci xorondom yi sax léeg nga jox ci misaal nga xamante ne am kilifa am na ku ñuy déglu te loolu dafa am solo lool. dëgg la mhm. euh, te itam oustaz bi nga waxee ne mënee su tawaar ku dee ndekete dee gi léeg ñu jàppee ko ku ku faatu bañ sàng ko. waaye nit di dox ba noppi itam te mel ne ku dee nga xam ne kenn mënu koo waar. ku koo dee dëgg kooku moo dee dëggantaan. sëñ Samba daan wax dee gu weex ak dee gu mm. xonq ak dee farkal mm-hmm. bu nu wax ko. waaye kookuy dox te ba noppi dee koo dee. Mm-hmm. waaw. wa shukran est-ce que na solo jërëjëf loolooy laajam bi teg na ci beneen laaj Oustaz Alioune nee na ki nga xam ne dafa ñëw ñuy julli tàkkusaan hmm. mu bëgg a julli tàkkusaan waaye fekk na moom julleegul woon tisbaar hmm. Hmm, nan lay def ni muy def mooy mu dem julli ji tisbaaram joojee doogu julli tàkkusaan bu fekkee tàmbali na ba ci digg ba mu door ko xam nag na sëlmal te dem na julli ba julli ko jeex mu door faa bàyyi ilimaan dem julli ji tisbaar door julli takkusaan ndeysaan wa shukran tubarkàlla am na solo imaam jërëjëf ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax loolooy ay laajam sëñ njàngame laajoon na ci albidaaya bi doon na ubbi albidaaya bi waaw ñu koy tëggaat waaw waaw xam naa ñu den koy rediffuser laat rek ci biir guddi gi incha allah loolu bàkk dana ci xel incha allah incha allah ci bu ñu noppee tey ci yëf yi incha allah waaw ndax comme waaw mu nga noonu daal. tubarkalla ayca <laughs> ayca <laughs> Imaadi. nga koy jërëjëf jërëjëf ña nga mbéy te Rome jërëjëf suñu mbokk mi Xalilulaay kan moom mu nekk fale Paris Oustaz Xalil nee na. Euh, laajam bi fële ci suuratu Nisaa yi. Mm-hmm. tolloog fi suñu borom subhaanahu wa taala aaya 128. Mm-hmm. <laughs> wa in min baaliha nuzushan aw iraadan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulhan wa sulh xayrun wa xadiratil anfusu suxu wa in tuxsinu wa tattaqu fa inna allaha kaana bima taamaluun xabiir xabiira xabiiran jërëjëf ci laaj mu am solo boobu laaj bi dafa ñëw ci thème bi ñu doon waxtaane diggante ñaari way dencante tey nag jigéen ju am problème ci jëkkëram la yàlla yi dicté ñu mar a def ba diggante bi baax wa inimraatun xaafat min baaliha nusuusa bu jigéen ragalee ci jëkkëram nusuus nusuus mooy ay war-war yu ko war te du ko def am jëkkër mu war a fay courant du ko def war a fay ndox war a fay yece tege di toog bañ lay coupé war a fay luyaas du ko def nga ragal ci loolu te boo ko sàngee mu indi eraad iraad mooy du mooyu ñàkk a nobati song la xuloo bu guddee mu tëdd suñu borom nee na bu li xewee fala junaa alayhim alayhima an yusliha benn bàkkaar nekku ci nu waxtaan wa sulhu xayr waxtaan wi gën tas gi allahu akbar waaw def leen débat ngeen waxtaan mm-hmm. waxtaan wi moo gën tas gi mm-hmm. mu ne waxtaan nag yombut ndax wa uxdatil anfusu mhm. ci ne sa bakkan day indi bëggee mhm. ak foñoog waaw lii laay def mhm. bu mu waaw bu la ko manal loo mu dellu la ko foofu loolu tax mu naqaree defar waaw dégg nga mu ne su ngeen su ngeen def rafetalee boole ca jom ah yàlla de xam ne li ngeen def maanaam foofu kon rafetal ak jom rek moo koy def kon lii loolu rafetal ngeen na jigéen ñi rafetal lu mën na ko def togg gën a neex col gën li népp rafet rek ku góor kii ne wala taxu na am jom noonu nga leen koy séddalee waaw nu li eh, góor gi na am jom mhm. bu jom ñëwee am na yoo xam ne ci kër góor day xam ne moom la war lu dëgg. waaye jëkk ba ñu génn sa bagage ci biti. Hmm. loolu góor waru ko def. du sag du sag de ñàkk lekk sax moo gën ñàkk fay luyaas. loolu nag jom a koy def. dëgg la hmm. dëgg la. kon nag oh. laaj ji sunu borom. Hmm. mi ngi defar sëy bi mu ngi wax ak ku jigéen ki ki jëkkëram ñëw commencé indi ay benkeñ ak ñoom sëy yooyu naan lay def. waaw. d'accord shukran ci laaj maam Salam. macha allah macha allah am na solo tamit suñu bëgg yaakaar naa ni aw soñña ñëwaat na. ci responsable bi muy góor. léeg nag mu am ci penc mi. Hmm. jigéen ñi dañoo am na ci ñoo xam dañoo dawa dawa ba ba seen dale dagg. Hmm. dëgg ngir bañ gàcce rek ndax booy sëy góor te mu xaw a yu góorlu lépp. mu ci sa mbagg te ngay borom jom. mën na laa lor rek doo ko yëg. la dëgg la. kon nag soññee ngi lu am solo la te itam ci biir laay ji oustaz dañ ciy déggee bi nga waxee ne defaroo moo gën maanaam hmm. waxtaan moo gën. oustaz defaree daa am solo lool te daa damay mel ne booy seetlu defare daa tàmbulee ñàkk. maanaam ab sëy bu am réeroo. nga gis ne mag ña ñoo toog di waxtaan nga ne lu ñuy waxtaane ñu ne dañuy defar ab diggante mm-hmm. néew na lool day mel ne dañuy seetaan rek xale ya di mer ñiy mer di mer ba mujj rek ñi jaabante dem tribunal ak a ñëw li eh, eh, maanaam li fi të te buñ toogoon waxtaane ko ñaari baat rek xëy na mu réglé wu dafa bari lool oustaz dëgg la moo tax uh, Omar ibn Khattab ñu mës yónni hmm. ñuy defari hmm. buñ ñëwee ne jagut mu duma leen ndeysaan ah lu tax loolu buñ ñëwee ne jagut hmm. mooy leen sunu borom nee na wa in yurida islaahan waaw yuwaffiq lahu baynahuma dëgg la bu ngeen amoon yéenee defar mu defaru <laughs> mu ne kon comme defarul nag da ngeen amoon yéenee defaru eh, defare macha allah mu tax defar dafa baax bu ñol ñol jógee bu ñu la waxee da nga cee wax lu rafet mm-hmm. dagg ki ngay waxal. Mhm. jubbantiwaat ko. muñloo ko. door ko ñaal mu dem. daa mel loolu taxoon sëy di am baayaleeg ndeyaleeg nijaayaleeg magaleeg mm. yooyu. ak waaw ndax jox ci nit sañ-sañu mu man cee dugg ba man cee wax. ndeysaan. xam nga léeg lekk nit jóg sol aw dàllam. Mm-hmm. bu fekkee bàyyi ki ñu ko bàyyi la mi ci kër gi. Mm-hmm. day ñëw rek wax ko papa. Mm-hmm. lii ma naqar naa nga ma ki naa nga ma ki naa nga moom jeex tàkk. Serigne Cheikh nee na li nga war njëkk def mooy jox ko ndox mu naan. koy jox ndox mu naan mhm. bu naanee ba noppee na nga door a tàmbali nag tomb yi mu waxoon nag nga wax ci tënkal ko ci loo xam ne lii mhm. dana seeral xol bi dana dellu si waat ndànk soo amee dara nga domp sa poos jox ko na ko demal nga ñibbiti muñ est-ce que rek mu defaru mhm. wa in yurida islaahan yuwaffiqillaahu baynahuma waay ndeysaan wa shukran est-ce que kon nag islaaha ngoog sulx mu naka jekk xuloo da daan am oustaz waaw loo ci ñaari dencante surtout sëyub ndaw naka jekk da daan am mais nag am na ñu daan taxaw di defar ñu daan taxaw di defar nag ñoo fi daanaka ñoo fi nekkatul léegi waaw léegi waxoon naa la ngay wax rek waxoon naa la ko yaa waxoon naa la ko kii lii si ci dugg sa bopp waaw léeg ndaw si mari ñëw kër pa yaayam yaayam foofu meeram doora ciy dolli eh, nga ñëw nuyoo yaay du la fay xool fële ne la booy dellu génnaa ci adduna ak àllaaxira adduna tukki te fekk na ndeysaan moom de bañul dafay wut ko wàllu si. day wut wàllu kii wut wàllu nga ñëw ne sa ne ne sa kilifa. Mhm. sama jëkkër nangam nangam jëkkër ji ko rek yuuxu. Mhm. ah da may bëgg booleeg nit ñi da may bëgg booleeg adduna fekk du noonu. wallaahi tukki. dëgg la wasuluxu xayr. Mhm. waaw dëgg la wa uhdirat al-anfus as-suh mhm. wallaahi sukran ci laaj bu am jërëjëf tontu yi am solo yooyu macha allah lu ci rek jar na tem mbàkkee ki topp mooy madame Diallo madame Diallo de saa ñu ngi koy jaajëfal te di ko nuyu suñu jigéen bokk ci sa commune tamit waaw moom ci commune coalition Allahu Wahidun la bokk mhm. ay siyaar la indi oustaz ak ay nuyoo nee na nag ci wàllu sëy moom jaadu woon na léeg-léeg nag bu ñu toogee ba mu yàgg ñaari way dencante yi toog nag <laughs> <laughs> waxtaan ci seen biir kenn ku ne xool lan la waroon def te defu ko ak euh, àq yan lañ amee lante loolu sax di diir bu mu ko jox dafa sori. Mm-hmm. diir bu mu ko jox dafa sori. Mm-hmm. daa war a gën a jege loolu. daa a gën a jege. Mm-hmm. boo ko joxee ab lay sori daa war a gën a jege. Euh, bu ëpp na ba tey. parce que su su su su su daje jotee rek. loolu war na am. ñu coppite ca tuuti. dëgg la waaye bu ñu dencee débat yi. buñ tasee. day bëri. dëgg la te su bëree man naa solal kee wala mu solal kële. Mhm. waaw nañuy waxtaan rek tabarkal te góor day wax dafa am art d'écoute. Mhm. ci jigéen. Mhm. li ko naqari ba mu koy wax. léeg-léeg mu wax ko jooy. léeg-léeg mu wax ko xol bu métti. léeg mu wax ko am lu ko tabarkal mu wax ko du am appétit. léeg-léeg mu wax ko du nelaw. yow mi yow mi koy déglu nag. yaay am art dëgg waaw wax naa sëñ Mbàkke na ko seen soxna ndaa mos a ñëw ci kër gi di. waaw tabarkalla ne ndax am nga jot mën a ko waaw ma dara ndekete tey laay. waaw mu tàmbali. mu tàmbali <laughs> nettali ma keroog ba mu juddoo. waaw bi ko feraleem soow. Mm. kañ ko mayoon. nam ko yore woon. ba mu dugg école moom. <laughs> te ci benn affaire la jëm. ci benn tabarkalla. Mm. ba ma commencé dajant mu ne ma saa da ngay nelaw. Hmm. ma ne déedéet. ndeysaan mu continuer wallaay lay ndeysaan xam nga lu mujj. Hmm. inscrire ma ci daara ji liberté 2. waaw waaw. may jàng si may si. moom kay xëy na buy def noonu di ko comp ndànk. waaw ba pare épisode <laughs> pare ba mu fa jàngee ba tane defee long métrage du mu fa jàngee ba tane. ne ma comme tan naa léegi nag mën naa ñib mën naa bàyyi. ndeysaan waaye su ma fi ñëwutoon. ndeysaan toskare. <laughs> waaw da ngay la foo desaat si woo daal. dëgg la jigéen noonu la. Hmm, mooy ah, daara de li nga wax rek moo ci nekk. boo bëggee régler mbir. Hmm. da nga koy déglu ba mu tuuru ba vidéo ba jeex. bu boobaa loo na tàkk dëgg la mais bu fi waxee. te hmm. sa tànk hmm. loolu na solo de. wallaay am na solo de xam ne soxna yi dañuy dem ba wan lor ñuy bañ a jënd ordonnance wala même bu dul loolu it jënd ordonnance ak ku leen rey lañ yemale ñoom sawaruñ ci yóbbu hôpital sawaruñ ci jënd ordonnance looloo. dañoo jàngul boobu ma an faqoo ji ma waxoon sànq rek <laughs> ma hmm. waxuma la sax nga nekk ak moom hmm. waaye gis nga nit ku feebar hmm. sol aw dàllam di wut ku ko jëndal ordonnance loolu boo ko jëndee mbaa nga jox ko njëg gi li ngay def ci moom ku xamoon loolu da ngay denc loo jëndee ordonnance sëñ Abdul Xaadir dafa bokkoon ci liñ ko daan waaw liñ ko daan jële ci moom xaalis mhm. mooy dama am ordonnance waaw jàpp ne dañ koy nax dégg naa moom boo ko masaan wax ah. lu mu jàpp dana ko bàyyi dëgg la laaj naata la nga ne trente mille bu la joxee quarante mille du laaj weccet mhm. ba noppi bala ngaa demee mu mu jaajëfal la sant la bu baax a baax a baax dafa xam la mu koy jural léegi nag su fekkee da ngaa nekk ak jabar ci gi sëñ Mbàkke mm. ba mu mën na aw lor wala nga nekk am nga sax aw lor mm-hmm. waaye am na lu koy métti mm-hmm. mu ñëw ne nangam daf may métti mm-hmm. waaw gi boo amee demal nga jënd boo amul wax ko wax ju neex joo xam ne dana ko wóor ne la fee nekkul ndeysaan mu jaax dëgg la te kat suñu borom nee na. Hmm. ku joxe ma lay jox. ku joxu du ma la jox dara. Hmm. loolu na leer dama yaakaar ne xanaa oustaz kay kii bañ a joxe ordonnance kay mooy ki retraité waaye ki toll ci liggéey ki ba jabaram toll ci wanu lor ki retraité sax léeg-léeg mu far dara de kay da koy jënd journaux wala ñoom si drive ñu far waaw yàlla meen di feebar ci kër gi moom léeg-léeg mu waaye toll sa jigéen toll ci wanu lor ah. mu toll baram ngay bañ a dindi ordonnance ah. kooku da jaajëre yedd na gis loolu jërëjëf wa Kayre moo ci topp imaam <coughs> yi waaw Cheikh Tidiane Kayre Mbacké mhm. nee na ginnaaw nuyoo yu mi Mbacké Cheikh Tidiane Kayre nag wax na ci yu rafet rafet te ñun ñëpp la ko waxal bégg na ci yow lool <coughs> nee na ngay musu ci cet incha allah ngay wax onze billahi min shaytan rajim yooyu na laf cet laf cet waaw ah, ah, tabaarkal ndax fi nga koy yóbbu la mhm. te itam loolu dañ ko koy nangul ah, léeg-léeg nga déglu ak waxtaan waxante ne daf lay branché waat mhm. eh, surtout nag heure boobu ngay waxtaane dëgg yàlla Euh, bu la ku la déglu attentivement. ci bëccëg bi yëpp dana yu mu yu mu yu mu yu mu dundee. macha allah jërëjëf yal yàlla gën ko sàmm te gën ko jàppale. amiin amiin yaa rabbi ginnaaw mi ngi tàmbali naan bisimilah rahmaani rahim daal. Ah. yëgal na laaf catañ ci ginnaawam. <laughs> ci allah. macha allah te sunu borom. Mm-hmm. yim moom. Mm-hmm. da koy sàmm. Mm-hmm. yim moom. da koy sàmm ndax nun yin moom ni nga koy sàmm. dëgg la. kon du bàyyi waayam jox ni kum neex rek nga ñaaj te bu subaa nga ñëw ñaaj. déedéet déedéet. loolu tam am na ci. waaw bàyyi ci xel baax a baax rek di léppay baax incha allah. macha allah mooy joo xóoram joo jafaran jaay xulli xaala maa xaala la yi xatan. ay tibli ko fii boobu daay ñàng moom saa yi xatan la xadaroo foo saa yi xatan. xam ngeen ko daan lii ma. Ah. Alaaji Mor Mbay Korti. ndeysaan. Alaaji Mor Mbay Korti. Alaaji Mor waaw waaw moom rek na ko ah. yow sa nangam ñu rafet na. waaw ne ko kun tafata tàpp ma law. <laughs> kun tafata ne ko wala mel joo xóoram joo jafarang jay. xaaral maa xaal la xadaru foo say xatal. la <laughs> xadaru foo say xatal. xabar a xam xam ma yi mu wax yu mu de waaye yu garaaw la. <laughs> ayca. yàlla yërëm amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi mag ñu mag ñu neex la ñu woon te bari culture. munu fee weesu. ndeysaan ah, munu fee weesu. ndeysaan <laughs> jërëjëf jërëjëf si Cheikh Tidiane Kayre sant rek ko yàqas Kayre jërëjëf euh, nee nag dafa de seetaan fan yee pass ci benn télévision mhm. nee na mbër muy wax ni yàlla daal maa ngi nii mayoo ma dara sa eh, muy bëri nga may samay moroom xañ ma nangam naa la wax ju xaw a ci moom daal muy wax mm. loolu daal nees koy waxe yàlla na yàlla yërëm aji wax jooju loolu mm. te delloo si ko mm-hmm. bi muy wax naan mayoo ma dara lim ko may la xamut ndeysaan mm-hmm. ndeysaan am na ñoo xam ne. Hmm. bu ñu xëy dañuy dem hôpital ñu dindi seen deret ji. Hmm. solal leen jeneen ñu door a dem. Hmm. am nga soxlaa tuur ndox li ñu tuddee saw. day dem ca hôpital ba ñu defal ko la tax muy saw mu door ñibbi dem. allahu akbar am na ñoo xam ne raakol la ñuy añee tey. te wuli wuyul. am na ñoo xam ne raakol la ñuy añee <laughs> du dëgg. kon bi nga toogee di wax naan yàlla defalu ma dara. yem la defal noonu moom nga xeeb. Oustaz mm-hmm. Alioune xam nga Imam Mbaye Niang mm-hmm. waaw bu baax sax MRDS. Mm-hmm. xam na dafa ñëw ci benn hôpital ci hôpitaux yi. Euh, gaare otoom. am ku ne aw allahu akbar grand fi nga génn nooy na. ci raxaskati oto yi. nee na waa ji ne ko. li la yàlla defal nga gisul. mu ne ko lu xew. mu ne ko man benn rein lay wër di ko wut. soo ma ko joxoon ma jox la oto bi. xale bu na këpp. allahu akbar allahu akbar oh. dëggante nit bi mu ngi lu waaw oh, boo ko xamee da ngay ñee kenn. jigéen mas na ma koo wax ma ne ko. Mhm. santal yàlla. Mhm. fi mu def weeni bëy boo ko fi bu fi defoon sa ween yi. Mhm. booy nàmpal ñëpp bokk ci. waaw waaw fu ne nga aj fa sa tànk ngir nàmpal. ci. <laughs> yàlla ngand la kon nag yàlla deful ma dara ëpp nay wax <laughs> yàlla daf maa fàtte ëpp nay wax <laughs> wala lan laa def yàlla ëpp nay wax yàlla xajul ci kenn te ku ne defal na la ba nga doyal sëkk waaw ku ne defal na la ba nga doyal sëkk mbàkke ni ñuy natt yi mu def nag looloo bokkul lam lay defal loolu nga yeyoo mm-hmm. li may defal loolu laa yeyoo ku ne mi ngi lay defal ku mm-hmm. la yawmin huwa fii sha'nin fa bi ay alaay rabbikumaa tukazzibaan pourquoi ngeen may atte ñàkk la mm-hmm. te te nag suñu borom kat daf ñuy soññi di. ñu di xoolee li ma def. Mhm. wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuhsuha. sadaqallahu wala ci dara moom mu dellu ginnaaw. ndeysaan oustaz nag léeg-léeg ak saalit dana dab nit damaa xamul ba xam saalit googu nuñ koy tuddee. maanaam tawxiid lay doon wala lan ndax itam boo dégloo ni mu waxee sax xëy na moom du ne yàlla defaluma dara waaye maa ngi julli. c'est-à-dire maa ngi woor mm, mm, sama xol rafet na waaye euh, euh, yi may wut ëwma ko loolu da nga ciy da wax ne ko ah. kon ndax bi ngay jullee ko woor ngir am ndam moo tax wala lan moo tax très bien moo di julli geeg woor fayam du am ndam su fekkee ne <laughs> ci ci làmb waaw su fekkee ne daan daa gën ci moom waaw day daan mhm. bu daanu gënee ci moom mhm. yàlla day bàyyi ñu daan ko Mbacke. wallaahu yaalam. wa antum laa taalamuun la ko jiitoon mooy asa an tuhibu shay'an mhm. Mhm. wa sharrun lakum. wallaahi wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum. Mhm. mën naa am nga bëgg a daan. ndekete daan gënul ci yow. wallaahi léeg-léeg nit bëgg lu gënul ci moom. daanu gu yee moo moo gën ci yow. yàlla da lay bàyyi ngay daan rek. dëgg la bu muri woon rido yi nga ne ko naa daanu ba ne ngalañ. <laughs> ndax daanoo ma gënal li ci ginnaaw. dëgg la xam nga ci bag bi rek. ma ngi ci daje ay xale yu ma doon seet si. Mhm. ma ne leen na ngeen na ngeen kontaan ci lépp lu yàlla def. Mhm. waaw waaw mhm. lépp lu yàlla def. na ngeen ci kontaan. ndeysaan parce que. ndeysaan bari na ku dara. te loola gënul ci yow. ndeysaan bari na ku ñàkk dara fekk loola nga ñàkk moo. dëgg la de dëgg la de. jël jarul jooy. est-ce que torkal macha allah fi ngeen dugg baax na xam naa moom da ci am wàllam waaye ku ciy déglu rek am nga ci wàll ndax léeg-léeg nit lu ma yàlla def wala lan laa def yàlla te fekk yow it am nga ci wàll te nag euh, communication mhm. euh, tubaab da ko fonk mhm. mais boo toog nekkatee homme public ci yu noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. di am ku lay communiquer koy diisal dafay baax. <laughs> waaw ndax mbëri léeg ñu toog ci plateau ginnaaw ba ma sant yàlla jur ci sant sama ñaari waajur. Mm-hmm. xam a lu baax la ñoom te bu seen bopp. Mouhamed Ndaw ko fi indi <laughs> sant sama sëriñ Cheikh al Aji loolu ci daan dolli moom. ndeysaan <laughs> yàlla yokk wér. jërë ngeen jëf seen bokki mbër yooyu jërë ngeen jëf Seex Tijaan Kayre Mbàkke topp mooy Moussa Ciss Morola bëgg ceeb. ndeysaan Moussa Ciss Morola ñu ngi koy jaajëfal baax a baax <laughs> bëgg ceeb ak mburu nee na moom Oustaz dafa bëggoon nga ñëwal ko daal ci ñi nga xam ne dañuy faatoo léeg-léeg furut ci réew mi ñu leen di indi. ñaare dañ leen def ci ñaari kees buñ leen dindi dana am keesu armignon wala kees gu ne ca biir goo xam ne duñ ko dindi ndax nañ ko liggéeyee mhm. bu ñu waxee ñu ne defal nañ leen yañ leen war a defal yépp tab julli di ko soxla ba noppi muy mhm. laaj ba xam noonu jub na wala ndax dañ ko waroon a dindi jub na kay man fekke naa fa benn ñaar jàpp ñett mbaalu këpp mhm. bu nu ñëwee hôpital bi waa faatoo dañ leen gaay seenum néew a ngóog ñu sang néew bi li ñuy defal julli ñu defal ko sang ko sàng ko mhm. bu dee beneen néew tam ñu jox seeni i bokk bu ñu noppee ci sàng ak sàng mhm. ñu jullee mhm. ñaanal jàng lixlaas ak yañ fay ñaan yëpp ñu def ko daal di fam nag def ko ci kees kees gi ñu koy def dañuy bëgg lum yàgg-yàgg du nëb lum yàgg-yàgg mën naa ñàkk nëb ci diggante bi muy jóge foofa di jëm ci mu réewam ñu def ko ci genn bi ñu ko defee càngaay loolu ñu ko sàngee ñoom jullit yi noonu lañ ko jël nag def ko ci genn kees kaste kees googu ba nga xam ne dajji ko daanaka mën naa gaañ néew bi mm-hmm. su jëlee kees googu dugal ko ci geneen kees mhm. fab kees gi dugal ci geneen door nag teg ci avion bi mhm. nga xam ne fii ba muy ba muy agsi mhm. du fi du fi nëb du fi xeeñ du fi def nangam ñu def ko kees googu nag bu agsi bu ñu jël dindee gu mag gi dind gu gi mu des gi nga xam ne mooy gu gu ndaw gee ndaw ndaw gis ci néew bi robaale ko wàññul dara day mel ni càngaay la rek day mel ni càngaay la rek waaw robaale ko wàññul dara waaye di ko jéem a dajje ko dindiwaat loolu mën na cee ñàkk bu fekkoon dañ koo roboon nag sulli ko di julleewaat door koo suulaat. Hmm. waaye comme jullee nañ ko ba noppi dañu agsi rek. Hmm. bu la neex ma agsi rek ñu ah, dem. ko sullee eh, di ko dencaat feneen dañ akbar hmm. kon ñoom bu ñu ko defaree fële par exemple bitim réew. waaw ba jullee ko foofa. waaw su ñuy dañuy denc rek. mën nañu dañuy denc rek. incha allah jël jullee dañu julleewaat. shukran. jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf waaw. waaw koy koo koy seex euh, koo koy Moussa Cissé Morolan. Ah. Mm. imaa lii ki ci topp mooy euh, mbokk mi nga xam dafa leb turam. waaw mbokk mi ci lem tur yi man dafa ñu bokk rek doon dëgëral Mbacke ci waxtaan yi nga xam ne yaa ngi koy def ci fajar gi. Mm, eh, nee daal vraiment dugg nga 100 pour cent ci aj gi. Mm. am na solo mu doon ñaan oustaz itam nee na comme yow dafa la doyloo ci bàyyi doon <laughs> doon déglu doon déglu ñeneen. Eh, bëggoon na daal nga nga xaw a xuustul ci aj gi ndax mu dafa war a dem ren incha allah. jërëjëf jërëjëf ci laaj bi. bu dégloo bi ngay introduire dama ne sëriñ Mbàkke ren. Mm-hmm. day dugg ci aj gi. Mm-hmm. léegi su waxee cinq heures trente. Mm-hmm. ci aj gi. six heures et ma wax ci aj gi. dëgg la. day ah. day mel ni yéen nuru léegi kon ma ne ko nañ bàyyi sëñ Mbàkke mu wax ci aj gi. mu wax ci tabaski gi. Ah noonu noonu la noonu la ñu waaye suñ jiitlee nun ñaar. ah sëñ Mbàkke topp bi. ma ñëw tobbiwaat tobbi ga. Mm-hmm. vraiment sama tobbi ga kay day daal di réer kon. de du réer sax gaa waaye kon day nekk. <laughs> <laughs> sagale ma lool rek. yoo koy tobbil feneen rek ma fuural fee. <laughs> <laughs> bàyyi ma fuural foofu. <laughs> moom sax de xam naa dafa xew. sax lu am solo la mi ngi noonu. Euh, ci ci ci suñu waxtaani fajar yi. Mm-hmm, mm-hmm. nun lañ koy jéem a def maak moom. du du nu gisee nag di briefing. déedéet déedéet mm-hmm, waaye comme dafa may déglu ma di ko déglu. dinaa mën a ñëw sos ci li muy wax. Euh, loo xam ne bu waxee li mu waxee li mu dëkk mu ñaari ñaari waxtaan. moo gën ñu nekk nu naar ñëpp ci benn tomb boo xam ne bi day. loolu la loolu la tabarkàlla te nag. Mm-hmm. léegi tey nu man ne sëñ Mbacke ñu yóbbu ko grand théâtre nu seexal ko nag mm-hmm. <laughs> waaw koy <laughs> ah, ah, am na am na solo donc ñoo ngi koy baax a baax d'accord am na solo xam naa xiir dafa xiir am na solo waaye aj maak yi moom waxtaan nga ci ay yoon yoon yoon yoon mbay mi def ko usaa si bari def ko mm-hmm. def nga ko ci ay seede woote nga euh, fële ca jàkk ja ngir ñuy jàng aj ak yeneen i bunt yoo xam ne bari na incha allah da nga da nga leen ci ñëwal rek bala ñoo dem xëy na ñaari waxtaan wala ñett <laughs> ci fajar gi yoo xam da nga leen ci tënkal xeeti aj yëpp lépp. bu ko defee rek mu nekk seenu bind. incha allah incha allah yàlla baax na. alhamdulilah macha allah euh, yaa baax rek ndax tam loo wax yàlla tamit ci yaatal la bokk. ndax tam am say njaboot. di lay initier. Mhm. mu dem ba toll fii nga bàyyee leen penalti yi ñu koy dugal. loolu c'est important. alhamdulilah yal na yàlla gën a jàppale la. amiin amiin amiin taxawu la bu baax a baax. amiin amiin neex a bokkal euh, rajo nga. alhamdulilah jërëjëf. kon nag sëñ Mbàkke ki ci topp mooy su sama sëriñ bu bees bi te muy daw mooy Seexuna Sila. da nga koo mujj kii. <laughs> xamoon naa ne ci ñi sant Sila ngay mujj de. <laughs> non moom doy na ma moom. ndeysaan moom. Ah. waaw doy na ma doy na ma. am na solo kon. surat Nisaa yi lay laaj moom aaya 156 oustaz. Hmm. di tollook fa suñ borom di waxee. Mm, wa bi kufrihim wa xawlihim ala Maryama buhtaanan azima wa qawlihim inna xatalna almasiha isa bna mariam rasulullah wala rasulallah wa maa xatalu wa maa salabu ba aaya ja jeex mu nga boobu yàllaa ngi wax ak banu israil baax maam lool te mel niñ mel mm-hmm. ndax yaqubay seen maam te yaqub ibrahima ay baayam mm-hmm. ila axiri mm-hmm. yi mook ñoom nag ñu nekk ci ay mbir mm-hmm. ba agsi ci sunu borom jox ci ñoom nag mm-hmm. defe naa yaa ngi ci ay cent cent cinquante six cinquante six mm-hmm. boo yéegee ci kaw tuuti waaw fa bi maa naq dihim wallaay am na loom ban Israël def mooy lu ma siq ñoom couleur ñu dind ko wa kufrihim bi ayatillah luy wane ne maay yàlla ñu wedd ko waxat li mul ambiya di rey borom xam-xam yeeg yonent wa xaw li xuluubunaa xulf kuñ ci bëgg a waar nga ne hee noonu suñu xol dañ koo tëj dégg nga wa bi ak ngoree di gi am ci ñoom wax wa xawlihim ala mariama buhtaan azima ak sos gi ñu sosal mariama sosal gi ñu sosal mariama lii lépp ñoo ko def ñi lii lépp ñoo ko def ndax ñoom bi nasaraan yi naan Mariama nangam nàngam mm-hmm. ñoom ña naan Mariama nangam nangam. ju garaaw. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu yàlla ne lii lépp ñoom ma ko wax. wa qawlihim inna qatalna al-masiha. bokk na ci li ñuy def ñaan. Mm. rey ñun ñoo rey almasiha. ñu nga yàlla masiha man ñu ne Isa ibnu Mariam. Isa ibnu Mariam ba noppi nag teg ca rasulallah. allahu akbar. tey sama borom. waaw ne du sama doom de. jeex na tàkk rasulallah rasulallah hmm. maanaam foofu yàllaa ngi jàngale mm-hmm. bu fekkee dañ koo rey muy rasulullah mm-hmm. mën naa am sax kon peut-être mm-hmm. waaye buñ ne doomam la ah. ba noppi ñu rey ko waaw fu baayam nekkoon dëgg la baay bu toog fastee loxoom ñu rey doom <laughs> wallaay subhaanallah sori na ko sori na loolu mu ne mm. wamaa xataluhu mm. reyuñu ko de Mm-hmm. wa maa salabuhu daaj ñu ko de mm-hmm. walakin subbiha lahum waaye di leen ko niroo leen mm-hmm. <laughs> lii la yàlla wax ci banu Israayil ci seen taxawaay yi nga xam ne moom lañ taxaw ci Isa ibnu Maryam alayhi salaam ak wax ñu ko wax ñoom tabarkal wa shukran ci laajam bu am solo bi macha allah jërëjëf eh, bi na solo am na solo trop de mm, sual bi ma xalliha mhm. ñëw na ah, question à son honneur mhm. comme ni ko gars yi waxee ndeysaan waaye daal nga dégg moom leeral gi daal mhm. yàlla def na ko ba pare waaw yàlla moom leeral leeral na ba pare mais oustaz sa mbokkum daal wi laaj moom ma yóbbu xam naa ma boroxal la ko. ci wàllu asakay or. waaw bu ni daal dañuy dafay da ci dégg da ci xaw a jaxasoo ndax nee nañ ko ki yor or bi di ko takk moom du ko génnee asaka waaye ki koy denc wala ki ciy liggéey moom koy génnee asaka. lañ daan wax naan. Mhm. toolu duñ ko génne asaka. <laughs> waaw ndeysaan waaw <laughs> doolul tur góor. ah parce que. dañ koy bay pour jigéen ñi di ko rënd waaw mënoo ci am 600 kilos. Hmm. ah ñaar ñaaree takk or. Hmm. kenn ki lim takk du or xaalis la. Hmm. alal la takk moom alal la takk. bi muy takk ko koy génne asaka. ak kenn la ci am ak jaayu nopp. wallaahi wallaahi des amagu ci lam amagu ci jaarub loxo. ndeysaan ah. tey waaye ki nga xam ne li mu takk ëpp nag quatre-vingt-cinq grammes or. Hmm. juróomi kilo am na ko ci or jëm kaw. Hmm. Ah. kooku li mu yor du or xaalis la. Ah, alal la. loolu rek loolu moo indi werante boroom xam-xam yi. Hmm. nañ génne or asaka ak bu ñu koy génne asaka. mooy ki koy takk te lim takk mëtul quatre-vingt-cinq grammes or. jëm suuf ay deux grammes xaw ma vingt grammes ak cent grammes yooyu lay takk mm-hmm. Mm-hmm. kooku sëñ Mbàkke jarul génne mm-hmm. lim takk madul quatre vingt cinq jarul génne ndax amagul nisaab xam ah, waaye takk quatre vingt cinq fois cinq mooy ñu koy jënd ngir denc xaalis la bi dañ ci loolu kat waaw ah. ah. yéeme na alayhi salaatu salaam daa gis soxnaam sa Aïcha takk xaalis mu ne ko jee mu ne ko labbayk mu ne ko lii lu doon mu ne ko lii day maa koy waaje pour nga bég mu ne ko jigéen ji ne war na ko. Eh. wala jigéen ji ne sañ na ko. jee mu ne ko làbbayk mun ne ko yaa ngi koy génne asak mun ne ko ah déedéet nag xam nga lu ma ci tegal. xasbuki hmm. minan naar. Hmm. laa ilaaha illallah. xasbuki. minan naar minan naar. maanaam. doy bu bul ko xeeb. Hmm. lii lakk na la yóbbu na la sawar. lii rek mën na laa dugal sawara. cay bàyyi leen rënk gi génne leen asaka asaka bëriwut. wa shukran ci laaj mais man Moussa Fall bëgg a dem mooy est-ce que soo ko génnee ren. Hmm. est-ce que déwén da nga ko génnewaat. ah waaw bu bu fekkee wàññikuwul. bu fekkee wàññikuwul. dégg nga li ñu di wax ci al asaka yi jirim. Hmm. bu leen denc àlli xale yi. Hmm. asaka di ko roñ ba mu jeex. dëgg yàlla wax na dëgg. <laughs> Euh, léegi boo koy génnee da ngay dem jaay ci or ba génne wala man ngaa génne sa xaalisu bopp lu tolloog li nga war a génne. très bien. boo xaymaa ne am nga quatre-vingt-cinq grammes or. 85 grammes or ku ko doon jënd da nga am 1 million 800 mill mhm. nga nekkoon 1 million 800 mille divisé par 40. Mhm. mu jox la lay njëgg. waaw ay 30 et quelques mille. su ko defee loola. <laughs> man mhm. nga ko sa poche nga génne ko mbaa nga dem sa compte génne ko ca. waaw bu déwénee nga defaat. bu déwénee nga defaat ko rek li fekk or baa ngi fi. macha allah alhamdulilah shukran shukran eh, jërëjëf jërëjëf eh, yaa sayda seexu na si lépp mu daane léegi topp mooy dafa lépp bi ah. naa da cee tegoon beneen laaj mu jaddit la doon wax mm, ne dafa déggoon ñu ne alayhi salaatu wasalaam dafa mu jaddit wax ne moom ab mu jaddit la wala mu def jëf joo xam ne dañ naan ab mu jaddit la mm-hmm. waaye day dem ba jamono ñu jëlaat li mu jëfoon teg ko ci taabal ja <laughs> am ci yuñ cey yu yuñ cey dugal léegi loolu daal la bëgg nga ñëwal ko ci waaw ulama moom yàgg nañoo def ixtilaaf fii taxdiidil mujaddid mhm. moom mooy kan mhm. am ñu ne kenn lay doon am ñu ne mbooloo lañuy ñu doon mhm. nu muy mel day bari xam-xam te mën a joxe xam-xam ba te ragal boroom subhaanahu wa taala te am yaatu dënnu ñëpp bokk ci li muy def ba bu bu diine ji nekkoon lim nekk comme ni mu ko wax sànq moom bu ñëwee ñun ñu doon nelaw ci affaire daañu yeewu ñi amul doon conscience yëpp mu danañ conscientiser ku mel noonu mënuñ ci de al mujaddid waaw nawaytumaa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu loolu mujaddid nag indiwut lu bees baatu be baatu yeesal mooy li fi nekkoon la teg ko indi lu yees waaw indiwut lu yees lu yàgg lu nekk nag li kulli shay'in iza ma tama nuqsaanu mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag boo ñëwee mujj mujjaj bi mooy kon fekk na fi bool baa ngi fi. Mm-hmm. la man la bool man a def bool bii mën na ko def ba léegi waaye nag bool bi poussière na mu jàjj nu muy def yeesal jeex na jël bool bi ak ndox raxas ko moom set wécc ñëpp xamimaati sukkaat ci bool bi ñëpp àndaat bëgg bokk ci bool bi kooku mooy mu jaddit waaw macha allah wallahu taala alam wa shukran du joxoñ boppam nag hmm. du ni du mën a ñëw rek ne ne ne ne a day wax ne fas naa yéenee nekk ko hmm. bëgg naa koo nekk hmm. ba ñu ne ko ah yow daal xam nañ ne yow ah. torkal la waaw ayca oustaz Mbaye kon ku yóbbu rëpputal waaw waaw ku ci ci topp dafa leb tur wi ñoom dafa teg leb tur laaj mu laaj oustaz nee na ki takk soxna ñu ko ab ñaareel ngay doon ba kooku gëm ni moom ab ñaareel lay doon mhm. mu dem ndekete kooku ab ñetteel la mu ni wax yu ñàkk teg tegu ci dëgg googu mhm. est-ce que sëy ba wér na wala wérul déet sëy bi moom wér na mhm. góor gi moo wérut sëy bi nag wér na waaye góor gi moo wérut ndax dafa dafa war ab sëy boo ci dugg loo ca wax rek na nga engagé ba def ko ca yonent bi ne sàmmonte leen nag la ngeen wax ba jot ca ndaw sa wa shukran. xanaa daa yaakaaroon bu ñetteel nga ndaw si du nangu. Ah, mu seeti keneen. waaw bu bañee daal du tax nga wax lu dëgg. Mm. Ah, ñu dàqal sax de dalul dalul xas. bu xasee rek feeñ. Ah. léegi na nee na itam naka la def ba dundalug Nobel ak Nobel daal wax nga wax ñuy waxtaan wi neex na mais nooy yeesalug Nobel ak di ko dundal. jërëjëf ki nga ne bëgg naa la mu ne maa la raw. Mm. noonu nga mel ba mu ne maa raw. Mm. bu mu dañ. yow tam ci nga ne bëgg naa la lu ma mel ba nga bëgg ko. Mm-hmm. moom it bu mu dañ. noonu la ñuy sàmmeeg Nobel. jaay wala <laughs> sukkur tarkal la jërëjëf sëñ Ba kenn rëppatal. Eh, waaw ca ku lépp tur góor a bàyyi faal la. Ah. Eh, eh, góor a Baye faal Kër Seega. Hmm. <laughs> nee na daal jigéen ju bari ab laaj oustaz jigéen joo xam ne day laaj xaalis rek nee na loolu moom. ah moom Cheikh Al ma Madi loolu la waxoon kam doon jox euh, soxna sa. Hmm. ndeysaan. Hmm. ne ko maa ngi lay jox ku bëri laaj. waaw ku bëri laaj nag. ku tabee rek ko mën a yor. maa ngi lay jox ko moom bëri wax lool. Mm-hmm. bari wax nag ko nangoo digul rek ko mën a yor. <laughs> maa ngi lay jox ko mën a tooñ. Ah. ko mën a tooñ nag ku mën a jégale doo nga ko mën a yor. ñoo no baaxi mag ca doxal. <laughs> ndeysaan lii boo koy wër ci téere doo ko gis. moom mag ñii. jaay <laughs> maa leen bëgg. ah ku ci topp. ku ci topp moom itam dafa lépp turoon moom ci euh, geenu Luqmaan lay wax. tolloo fi suñu wax ne inna allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu lxayta wa yaalamu ma fi l ma tadri mhm. mhm. wax ne mhm. moom rek ko ko xam benn bakkan xamul bu ëllëgee fooy faatoo wala ci lool ci lan ngay faatu waaw benn bakkan xamu ko. Mhm. ku ci nekk def la koo nëbb rek. Mhm. da ngay dem rek benn bis rek nga yëg ne. sa bakkan bi jeex na. Mhm. kon bu maa tëddee nafsun. bi ay ardin tamut bi dégg nga. Euh, kon. inna laa indahu ilmu saa. xam-xamu bis ko xam banqal sa baaraam allahu akbar kon ka ne la fan yee ci benn télé moo ñu dese day wax rek jeex na wayu <laughs> ko waat waaw wayu nazilul xays yàlla mooy indi xéwal kenn xamul bu subaa gën xéwal ngay am mm-hmm. mu ñaata ñaar ñaar wa ya'lamu fil arham mm-hmm. li jigéen ëmb mm-hmm. moom rekk a xam doom jooju lu muy doon ëllëg ci du waxoon na góor ak jigéen waaw ndax kon man fir arham lay wax waaw oh! dégg ñett de ba maa tadri nafsun maa saa taksi bu xadaa bu subaa looy am xamoo ko tey sabab loolu rek waaw akbar ñaata ñeent ñeent wa maa bi ay ardin tamuutu Mhm. kenn xamul fooy dee allahu akbar inna allaha yàlla mi wax ne nag moom mhm. alim ku ne juróom yëpp xam na ko mhm. xabiir te dañ na ci kump ndeysaan est-ce que est-ce que gàcce jalla jalaaluhu mii nënd mi ne ko mii nënd kenn du ko fel Ibrahima Thiam nee na moom daa bëgg a takk soxna yaayam ne ko ah takk gi de baax na waaye daa am yu bari yoo war a defal te defaloo ma ko Oustaz Mbaye ne ko yumu mu ne ko ah tax naa sanseel ma sama meuble defaraatal kër gi nangam nangam mhm. ñu ngi wax yaayam na ko bàyyi mu takk ñu wuti lu defar kër gi ñu ngi wax yaayam na ko bàyyi mu takk ñu lu defar kër gi waaw torkal la ndax aj màkk gii bu tasew nag takk la takkal te toog mhm. ndeysaan wa shukran jërëjëf jërëjëf oustaz ki topp dafa lépp tur bi nee na ndax ku mosul aji màkk mën naa ajale keneen ba yonent ba ñëwee ci ajjir daa dégg ku naan labbayka an suburuma <laughs> labbayka an suburuma suburuma maa ngi lay ajal yonent bi na wool leen ma ko mu ñëw mu ne kuy suburuma mu na ko moom laay ajal yonent bi ko mas dangaa aj ba pare mu na ko déedéet mu ne ko xajj an nafsika fu ma an subur ma mm-hmm. ajal sa bopp ba noppi door ajal subur ma ku ajut ba noppi munoo ajal kenn mm-hmm. wa shukran jërëjëf ki topp mu ba bàkke mooy te mooy ki mujj affaire bi mooy far sek far sek ne na nag lislaam ndax daa wax fenn takkoo ndax ab takkoo daa am fenn takkoo waaw takkoo jabar la mm-hmm. mm. takkoo mm. mook jabar yëpp a yem li tax ñu tudd baatu takkoo daf laa takk nga takk ko ah, luy def laa takk nga takk ko mm. mooy dafa am a xam yoo xam ne moom miñ takk te du ji moo ne moo ne yooyu wàññi na ko teggi na ko moo ko tax a tudd takwa <laughs> ndeysaan <laughs> jërëjëf loolu mooy laaj yoo xam ne ñoo fa doon sëñ Mbàkke mm. barka rek barka la laata looy su su bëccëgee rek incha allah maa ngi ci maa ngi ci Ibrahima alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. bu guddee dinaa ànd ak imam bar ñeent nga ci almin bar ak jaar jaar yi mag réew boo noppee ci tafsir bi dinañ ànd ak waa daara ji ci xamtu ñun ñoo ngi ci xajatul wadaa yonent bay tabarkalla mu ngay toll Musdalifa ma nga jëm ca euh, aqabatul kubra ca Jamra ca jëmale yàlla. macha allah bu leen toxal si nit déglu mbokk yi.